ku gis xutbub jamono bu am fi yow ka liiw ca jiital leen borom tuuba mu xëy di gis ko te lii jagleeg borom tuuba te lii bu dee jib ba déggoog déggi xol yi sa xoogam ngeen biral ne ka tànnee foon borom ci kaw sëriñ si ñu ak kaw sëriñ si xam te noo fi jébbalu xëy jiital borom tuuba jébbal ko jàkka sa koo jàkk taxaw fa ganaam dëkk si kartana barke borom Touba dëkk si kartana barke borom Touba dëkk si kartana barke ñooyay ku gis xutbub jamono bu am fi yow ka ca jiital leen borom Touba mu xëy di gis ko te lii jagleeg borom Touba te lii bu dee jib ba déggoog déggi xol yi sa xoogam ngeen biral ne ka tànneefoon borom ci kaw sëriñ si ñu ak kaw sëriñ si xam te noo fi jébbalu xëy jiital borom Touba jébbal ko jàkka ya sa ko jàkk taxaw fa ganaam dëkke si kartana barke borom Touba dëkke si kartana barke borom Touba dëkke si kartana barke borom Touba te booba ñooyay ku bu am fi yow kali an bihi akun misla badri rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli laysa liya al yawma hajatun uammiluha siwa ikhtifaika xafqal qalbi wal badani wakun amaami wakun xalfi wakun wasati wa fi yamini simali yaara jaa ni ñoo ngi nuyu mbooleem téléspectateurs yi seetaan Touba TV di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa suñu borom yàggale ko fi te mu wér di nuyu kilifa yi diine ci réew mi ak mbooleem fu taalibeb sëñ Touba mas a nekk rek ñoo ngi lay fekk fa nga nekk di la jox waay yu nga yor dellusiwaate ngeen seen émission kenn du sëriñ bi di ci ñaanal ak a ziyaare jëwriñ alaaji Mbàkke yu fay mi nga xam ne mooy eh, jëwriñu sëñ Touba Xaadimu Rasuul di président directeur général Touba TV ziyaari sëñ Cheikh Balla Samb sëñ Jibril Ndaw ak mbooleem koo xam yaa ngi jàpp ci liggéey bi sëñ Mbàkke Mbooj ñëpp noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare euh, fas yéene nag àndandoo ak émission bi àllarba ju nekk ki nu ko baaxoo di àndal muy borom xam-xam bu mag di koo xam ne ni ma koy waxee saa su nekk ci empreinte am ci liggéeyal Cheikhul Khadim di ñaan yàlla may ko mu yeggale ak coobareem muy sëriñ Abdoulaye Diop Bichri ñu di ko ziyaare bu baax a baax di am mbégte Euh, xam naa ni ma koy faral di waxee rek defatina nam ndax euh, émission bi daa am émission yoo xam ne nii dañoo bëgg ku ciy sañse am émission xam ne dañoo interdit ku ciy sañse émission bi nag daa bokk ci ñi interdit ku ci sañse te moom nanguwut a bàyyi loolu euh, yéen téléspectateurs yi nag bay ba ngeen jàpp ci tey noir la def boole ko giri bu am solo tubaarkàlla waaye bàyyeegu ko gaañi daal xam naa daal li mën a xew mooy sëñ daam daaminem bii tubaarkàlla xam mu ko ko daamine waaye bàyyiwu ci dara te ñaw bi set na wécc yàlla na ko yàlla sàmm xaw ma ku ko ñaw waaye maa ngi koy ñaanal waaye nag tampon yi na koy wàññi nay def benn ci wet gi te bàyyi benn bi waaye ñaari tempo ci kanam benn ci ginnaaw dañ koy interdit ci émission bi kon yow sëñ tailleur bi ñawal sëñ Ablaye bàyyil xel loolu eh, tubaarkàlla ma di ko ziyaare baax a baax eh, te di ko ndokkeel di ndokkeel sëñ Ablaye sekk ci bis bu am solo boobu nga xam barki dem maag sëñ Ablaye eh, jaar nañ fa mu waxtaan fa waxtaan am solo sëñ Ablaye Seck jànkatu xasida yàlla na ko yàlla gën a dëgëral may ko mu yeggale tey nag ñu sunu xarit la euh, ku nu bëgg la itam ngir sëñ Touba ak xaside yi di koo xam ne itam taxawaayam ci xaside yi bariwaa na kilifa gu lay wax ne man day euh, sëñ Mor Massamba Diop mooy sama jànkatu xasida euh, loolu nag la ko waral mooy waxuma sax mën a jàng gi ak yooyu waaye taalibe gi ak baax gi ak disponible gi loolu dafa daja ci moom sëñ Mor Massamba lépp loo ko yëgal ak lu man doon rek dana bàyyi itam ñëw nag ngi li lay temps la dana ñëw ngir wane ne dañ koo séq euh, mën a jàng gi it leneen nag ci suuf ndax saayir bu mag la tuwaar kàlla yàlla dimbali ko ci ba mu am ci facilité macha allah waaye nekk koo xam ne nii ku yàgg a yëngu ci xaside yi la def ci itam empreinte am bu am solo euh, xam naa sax dana bokk ci question yi ma koy yi ma koy yi ma koy yi koy laaj moom ndax xas kaset yi mu jot a génn yëpp kaset boo ci déglu rek dana am fu la yóbbu ba tey jii may wax ak yow waaye ku xam sëñ Mor Masamba nag di nga xam taxawaayam ci xaside gi ñu wax laysal biru te xasida gu nekk dangay ngay am tawféex moom dafa am tawféex ci xasida googu moo tax ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko sàmm ko may ko mu yeggale ndax bi ma ko woowee rek wax ko émission bi rek dafa daal di ñëw bi ma woowee Sëñ Ablaay it daf ne ma ku mën a jàng invité ku baaxit nga invité kon noo ngi am mbégte ci jóge gi nga jóge Thiès ñëw ànd ak ñun li nga xam ne mooy liggéey bi te Sëñ Touba rek tax ji ginnaaw damaa wax waxuma sax sa digganteeg Alaaji Mbàkkiyu waaye sa digganteeg Touba TV ak ñi fi yëngoo rek ñëpp say wëlëre lañ keroog bi sëñ Afe Coobaan dalalee ko wax naa ko fii eh, manque yu koy nuyu baax alaaji Afe ne le ne ko ki nga dalal waxuma sax mën a jànki waaye murit yëpp dañ ko war a jàpp te taxawu ko te jàppale ko ndax damaa xam ni eh, ñun njóobee ni li ñu dal eh, dañoo dañoo dana xam suñu émission bi daa neex ndax fi ne Masamba Njaay alxuraan ak mun jaay asan ak xaada njaay tasawuf ñëpp a ngi sànni xeer naan saf na njóobeen waaye tey 100 pour cent njóobeen la suñ morom Masamba Diop Amidou Diop sëñ Abdoulaye Diop tuwaat kàlla sëñ Mansour sax tey Jóob lay sant euh, ñu ngi koy nuyu baax jekk baylaat euh, di nuyu sëñ ma Cuun mi ñu jàkkaarlool tuwaat kàlla di euh, jëwriñi liggéey bi di kenn du sëriñ bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir liggéey bi yëpp kenn du sëriñ bi ñoo ngi leen di nuyu suñu yaay Awa Sow ak ñi ci seen ginnaaw yëpp ñoo ngi leen di ndokkeel di ziare sëñ Dame bu baax a baax ci liggéey bi ak réalisation bi di ko félicité ci gan gi muy waaj a teeru ci le 3 incha allah ñun ñëpp ñu fas yéene àndandoo ci dem ci ñu di ko nuyu bu baax di ko ndokkeel ci bis boobu yàlla na yàlla may ko mu yeggale ak jàmm euh, tam dajeek ay tawféex ma bëgg nag ñëpp jàpp ci taxaw ci ndax sëñ daam ku ne xam na taxawaayam ci euh, télévision bi yaakaar naa ko ko gisulit dégg nga euh, taxawaay bi mu am am na ko ma doon woo sax ma seen daam mi leen di réaliser dama koo bëgg ndax dégg gi may dégg aw rek loolu lépp tawféex la kon na ko ñëpp ñaanal yàlla may ko mu yeggale ak sagoom yeggale itam soxna si euh, te lépp di tawféex xam naa ne invité naa ci ñëpp daal tubaarkal la ñëpp invité naa leen ci bisu sañ daam boobu la trois di bég bu baax di ziyaare sunu xarit sëñ Kamal Ñang moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa Euh, sëñ Kamal euh, ñaw ñaw bu ne ñawal na ma ko waaye bii moom daf ma cee indil ay problème ndax fu ne ñu ngi may laaj fu tissu bi jógee ñaw bi tubaarkàlla euh, te loolu lépp da koo def ngir sëñ Touba waaye nag moom yéeneem ci ni muy taxawee ci Cheikh mun taxaa ndax ku sëñ taxaa fonk la am fu mu ko teg ndax taalibe gi ak sellug liggéeya bi maanaam liggéey bi ni mu koy sellale te da koo def ngir sëñ Touba rek di ko di di taxawu. Euh, mboolem ñi nga xam dañuy yëngu ci yoon yi nee na ma nag mesure sëñ Ablaye moom na gaaw ñëw waaye bu ñu nuróole daamine ndax comme moom tubaarkàlla moom euh, mooy sama kilifa da nga koy defal daamine bu yam defal ko benn tampon ci wet gi euh, tubaarkàlla sëñ Kamal nag M3 couture la tudd mu ngi fii ci cosaan ci Ridus bi numéro téléphone am di 77 277 03 10 277. 03 10 mooy numéro sëñ euh, Kamal euh, xam naa maître mbay mi ngi naan sax sëñ Mbaye di sama avocat boobu nan ma temps yi Kamal moom dafa ma dafa maa nangu ci yow waaye sëñ Kamal euh, sëñ Mbaye di lépp lu muy def sa jëm ma tax mu di ko def te xam nañ seen diggante ñu ko ziare mook sunu yaay musli kenn Adama Ndiaye ak waa kër gi yépp ñoo ngi leen ziare kon sëñ Kamal bég nañ bu baax di ñaan taalibe yi ñaanal ko muy M3 di nuyu nag waa atelier bi yëpp soxna Marie seen ak soxna maam Jaara seen ñi nga xam ñoom it ñu disponible lañ ci liggéey bi ñu ngi leen di ñaanal ñoom it yàlla euh, taxawu leen may leen ñu yeggale muy soxna mari seen ak soxna maam Diarra Sène euh, mu ngi noonu daal kàlla muy M3 Eh, sëñ Kamal Niang jërëjëf kon su ko defee ñu ngi nuyu baax sañ Malick moom itam eh, photo ci photo yi tubaarkàlla photographe ndax émission bu nekk dana ñëw àndandoo ñun ci eh, nataal yi su noppee itam yaatal ko xam nga moom it photographe la léegi tubaarkàlla kon sëñ Abdou Diouf it ñu ngi koy ziare ci machine ba moom it tubaarkàlla ci réalisation bi liggéey bi am solo lool ñu di ko ànd sëñ Ablaye maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi waxtu wi jot na xaw naa daw tey nag ki ñu invité sax ñu wax ne xas dëgg sàngam la ñuy waxtaane waaye moom image am wane na waaye dama bëgg bala ñoo dugg ci xasida gi bu sëñ Ablaye nuyoo nga ubbil ñu ak xasida ba noppi ñu door nag dugg nag ci li nga xam ne ni mooy émission bi sëñ Ablaye ñu ngi lay bàyyee kàddu gi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk yu tedd yi niy topp alarba bu jot ci seen émission kenn du sëriñ Touba nu ngi del siwaat di leen nuyu di leen ziyaara bu baax di leen ndokkeel leen baalu xaq di leen di ñaan sunu boroom boole nu jéggal ngi ñaan sunu boroom yàlla na fi yàggal sëñ Muntaqa Bachir te defal ko wér ba naal yi mu naal yépp mu am ci ndam lu féete kaw njortam te ànd ak taalibe yépp di nuyu sunu bunt ci sëriñ bi sëñ Hamza mu sëriñ Shuaybu yàlla ko yàlla sàmm nuyu boroom kër gi di jëwrinu xalifa bi fii ci ndakaar gépp di alaaji Ahmadou mbàkk yu fay di ko ziyaar nuyu sëriñ Seex Balla Coro sàmm nekk ci tele bi magal tele bi uuf njaboot gépp uufin wu rafet yal na yàlla sàmm ko mu ngi nuyu Jibril Ndaw mi yor programme bi jaar ci Mbàkke Mbóoj ci réalisation bi ak mbooleem boroom xam-xam yi nga xam ni ñu ngi yor xarale gi di fexe ba mbokk yi di ci jot ci anam bi gën a rafet yal na yàlla fay ñëpp yiw sëñ Hamidou nu ngi lay nuyuwaat di la santaat di la gërëmaat di la ñaanal sunu borom sàmm la te yàggal lool sa taxawaay di la jotal nuyoo taalibe yëpp ñëpp a lay bëggee ngir sa yar sa teggin sa bëgg sëñ Tuubaa sa mbaax yàlla na yàgg lool mu ngi am mbégte lool feggoowaat ak yow ci émission bii di kenn du sëriñ bi beral nuyoo sunu gan gu tedd gi nu am tey muy sunu kóllëre di kenn ci nun di nit ku baax di boroom xam-xam di ku bëgg sëñ Tuubaa di ko am engagement ci xasaayid yi di ku ko mën a jàng di koo xam ni ñi mën a jàng ñëpp ñoo maase di bëggee njàngam ndax rafet gi ak wér gi ak tedd gi muy ku baax di suñu kóllëre bu yàgg muy sëñ Mor Massamba jóg bu cees nu ngi koy siyaar bu baax di ko dalal ci jataayam di ko ànd ak moom am mbégte lool ci war a feggoog moom incha allah ci émission bi nu nuyu bu baax sëriñ Mama Cuun euh, ci teewaayam di ko sant jaare ci moom nuyu kuréelu kenn du sëriñ bi euh, nuyu soxna Awa Sow nuyu góoru yàlla yi ca biir yépp ak soxna ya bàyyiwunu kenn yàlla na yàlla fay leen yiw taxawaay bi rafet na lool sëñ xaami jun nga may ma bala may door ma wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di tàgge sunu wéejur bu baax woo xam ni dañu am sunu baay bu baax ñu koy wax bàyyi Moussa Ñang mu fii ci Tëngéej dégg nga keroog alaaji Abdoulaye sekk sax di ko tudd muy góor gu baax goo xam danoo jàppale ci zahir ak baatin dinu taxawu ci xam-xamam ragaluñu dara ngir moom uuf nu def nu comme njabootam wéejuram mi nga xam ne nag moo ko nàmpal taxawu ko defal ko lépp wàcc liggéey démb lañ ko jébbal boroomam ca Touba suba lañ koy ñaanal incha allah ca Tëngéej nu ngi koy fàttali mbokk yépp ginnaaw buñ ko ñaanalee sunu borom defal ko njéggal ak yërmande di ñaanal Baye Moussa mu yàgg fi te ndax njariñal jaam ñi la nu ngi koy ziar bu baax sunu wéejur woowu nga xam wàcc na liggéey sëñ dun di sant sunu soppe bu baax bu ñuy wax soxna Sooda Jaw dëkk ca Philadelphie ca Amérique soxna Sooda Jaw ku baax altine bii weesu euh, dafa def lu rëy dafa maa bëgg ngir sëriñ Tuuba sopp ma ngir sëñ Fallu ndax moom sëñ Fallu rek la bëgg mu ni ma nag soo ma defalee dem sama kër wéejur nuy ji leen dina dinaa ci bég lool dina rëy ci man ma laaj ko kër ga mu ni ma géejawaay la ma ne ko foofa miin naa ko ndax dëkk naa fa lu romb ñeent fukki at laata ma fay toxo kon dinaa fa dem incha allah daal di fay dem ba ba ñëwee ñu daal may defal accueil bu doy waar boo xam ni teraanga ja mu def kuñ ko defal war ngaa wax ca kaw ba ñëpp dégg ko te ñaanal ko dama ñëwee ndeysaan sëñ Hamidun euh, jasneer yi fii messieurs yi sax da koo togg def ko ci ay kii manjaayee ni wax dara def ko ci ay ay booli ni ma da nga koy yóbbuwaale ci kër ga fruits yi bu bu bu sëñ Modou Ndiaye Assane wax dara nag waaye teraanga ji bari lool ba ci kanet yi ak ndox meeg lépp dañ dañ ko yóbbuwaale enveloppe bu xaalis tissu yi teraanga ju ne mu def ko ni ma lépp nañ ko dugal ci oto bi dem yàgg naa ko yéene ngir sëriñ Fallu muy ko baax kon na ngeen ma ko ñaanalal sunu borom jàppandal léppam ca fa mu nekk ca Amérique muy sama soppe maa ngi koy sant di ko gërëm waaye di nuyu colonel Ousmane fay bu duwaan yére bu rafit bii ma sol dama ko defal waxtaan ca njaareem guddi gi muy defal sëñ Fallu ña fa ñëwoon ñëpp di jàngkat waxtaankat woddu na leen ca la mu wodde woon tissu bi jox ko ku ñuy wax sëñ Kader lëy ca plateau mu ñaw ko ñawin bu sedd xol bi yal na ko yàlla fay maa ngi lay joxal itam nuyoo sañ Cheikh ñas waaw boroom Fadel Couture waaw mën naa ñaw lool na ah. hmm, borom Fadel Couture mën naa ñaw yàlla na ko yàlla sàmm te defal ko tawféex ci barke sëñ Fall amiin jaar naa fa day am mbégte pour ñawal nu ñun ñi nga xam dañuy yëngu ci sëñ loolu nag bu ko nit di def di ko def ak désintéressement ak bëgg sëñ Touba. war na fu ñu toog ci télé yi weer ko. Mhm. te it ku nu am ñu lay yebal nga fay dem di fa ñawlu. dëgg la te koy ñaanal tamit li nu am ci baat yi. Mhm. yàlla yokk ko bu baax. kon sëñ Cheikh Niass ñu ngi koy nuyu. di ko ziar baax a baax di nuyu mbokk mu ñuy wax Ndawa. Mhm. Ndawa euh, pen. daa am ku may seet. woo ko téléphone ca PA yi. muy sama jigéen bu baax bu jox kun fay. ba may wër këram. bu ma koy wër woo ko mu mel ni ku génn ma ne xaaral. ma toog fii xaarandi ko toog ci benn place boo xam ne dañ ci gis photo sëñ Saliou rek ma ne ah comme photo sëñ Saliou fii laay toog xaar dugg ndeket yow atelier am la mm-hmm. ma duggee ci biir couture la yor mm-hmm. ñu toog fa ab diir rakkam ñëw ni sëñ Ablaye Diop bi si suñu place mm-hmm. kii kay moom faaw ma jox ko addiya xaaral ma jëndi boisson ma ne ko doy na tey nag fi ma jaar yëpp dañ maa benn mënatuma dara bàyyil noonu moom mu jël far tissu jasneer bu rafet dama maa la ko wodde addiya sëñ Saliou yàlla na ko yàlla fay yiw amiin amiin kon nu ngi nuyu ñëpp dal di leen sant di leen gërëm yii ñuy wax nag mën ta ñàkk ndax ku nu defal lu baax ñu wax ko waaw nu ngi leen di sant di jaale suñu mbokk mhm. sëñ Matar Samb ca Thiès mhm. bëgg sëñ Fall lool mhm. euh, bërki déem lañ doon ñaanal wéejuram soxna Ayda Gueye yàlla yàlla nangu ñaan yi sëñ Mor Massamba mii ñëw na fa muy nit ku baax moom it nekk Thiès sant soxna Aram Diop bu assurance moom it tubaarkàlla at mu jot rek mu assuré oto bi bërki déem la ma defal assurance su un an yàlla na yàlla fay ko amiin ngi sant ñëpp di leen gërëm sëñ Amidou di la delloo kàddu gi. jërëjëf sëñ ah, di am mbégte loolu. jërëjëf sëñ Ablaye ñu sant ko gërëm ko sëñ Mor ma bàyyi la nga nuyoo ba noppi dooru ñu ubbil ak xasida euh, ndax ñu bari ñu ngi xaar nag fi ne nii njàng mi ak euh, taxawaay bi kon maa wax la asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Mm-hmm. Euh, di rafetlu jotaay bi. Mm-hmm. ñu ngi ziyaare waa réew mi yëpp di jiital ci ziyaar bi. Mm-hmm. Cheikh Mouhamadoul Mountakha li ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi. sama ànd ak wér. ba mm-hmm. liggéey bi muy liggéeyal Serigne Touba sunu borom kàttanal ko ba màggale ko ni mu ko bëggee. ñu nuyu ziar. ñaanal sëriñ Saliou ture mm-hmm. sunu borom gën koo yàggal gën koo wéral. di jaarale ci nuyoo bi teg ko ci loxol doomam ju baax ñu koy wax Cheikh Ahmadou Mbacké mm-hmm. Touré. tudde ko Serigne Touba ñu koy wax Serigne Cheikh Touré. Mm-hmm. ak mboolem ay ay rakkam ak taalibe sëriñ bi yëpp. Mm-hmm. nooy it koo xamante ni ko sore la ci man. Mm-hmm. muy Serigne Khadim Lo euh, di jëmm juma jàpp juma jàppale. ngir jëmmi Serigne Touba. nuyu it sunu ndijaay joo xam ni moom it ku yàlla baaxal la mu jàppale nu. bi ñëw war waay wi ñu war moo ñu ko jox. def ci. gasoil bu doy jox chauffeur bi li ñuy fayat péage bi muy Serigne Assane Mbaye ñu ngi koy ñaanal moom it sunu borom yàggal ko wéral ko ñu ngi nuyu boroom kër gi Alaaji Mbàkke Fay mi mm-hmm. fi représenté Serigne Touba mm-hmm. ci taxawaayam bu rafet mm-hmm. ak jàppale jullit yàlla yi rawatina murit yi rawatina jànkati xasida yi nuyu it sama xalifa sama taawub nday sëñ Abdou Thiam moom sëriñ Saliou mhm. nga xam ne bu yàlla dogalee nu man ci xasida yi dara mhm. yàlla ak moom la moom la dégg muy jàng mhm. nu naw njàng ma di ci nap na bi ba sunu borom dogal li tey ñu ngi ñaanal ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ euh, Mor Massamba Diop euh, ci nuyu am solo yooyu kon dama lay bàyyi rek nga ñu ak xasida balaa ñu tàbbi nag ci xasida gi nga xam ne mooy principal xasida gi ñu war a waxtaane tey muy lay sel ak xasida goonu mën a ubbi rek baax na aoudu billahi min alseytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima yàllaawu yaa man laa ilaa xayra woo يا من أتاني دون سر الخير يا الله يا من لا إله خير يا من أتاني دون سر الخير salli wa salli wal tubaarik sarmada allasi samaytu muhammada wa ali wa sabi wal anbiya waskun li muqaddimat rabbiya wa allasi samayta bil biyaa قال سي سميته بالبديء يا من خملت بسماك البديء يا الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون دير خير سل وسل والتباهي أبدا على الذي تقديم منك بدا وهو الذي سميت بالباء ولا وسمي بالانتهاء وكن ميزني بأقي أسبلا وانظر إلينا بركات البسملة وصل يا رحمن ولتسلمي على نبي أبي بكل مسلم والذي سمعت مدير ولا لوسبي ومن ينير وانصر علي بركات الآل إمران في الآل وفي المال وصل يا ريم ولتسلما على الذي بك سرت سلما والذي سميت بدعائي والآل وسبي سبي العياء وانزل إليه بركات البقرة yaa man yuwajjihu bi xayri saqara wa xayra min kulli baabi naari wal qisi wal xusraani wa sanaari wa salli yaa malik wal tusallimi ala lasi basartu bi xalami والذي سميت بالملجئ والآل والأصحاب واذكر لجي وانصر علي بركات العالي عمران في الآل وفي المال بخير آفة وخير قدري يا ذا القلاه والورى والقدر wasal yaa qudus bi taslimi ala nabi madinati ulumi walasi samayta bi siwaay walaali wasabi sabi lwafaay wali abbi surati nisaay كونك لي في سلوه والمسائم وبركات الليل والنهار بآية تقرر والانتهار وإذمة من الورى والتذكري على نسام والتنور فكري وصل يا سلام ولتسلمي على الذي بفكاك ولمي Mor eh, xasida dégg nga ubbee xam naa ne air be njëkk kéemaane sax te it dafa mel ni dafa fekk si li ñuy bëgg a waxtaan ndax si yablaay tey eh, dafa am xasida gi ñuy bëgg a waxtaane sooy xool ci biir xasida gi day am foo xam dafay xaw a roofante ak yaa jumlataan ndax façon méthode bi mu doon waxee ci ngay xamee ni ki doon wax ku am fit la ku ñàkk a nawloo ñim àndal la moo tax day weddi li yenn archiviste yi di wax naan dañ ko fee jëlee dañ ko yóbbu fii communication da koy weddi te ba mu koy communiquer ñu ngi fi woon te jàpp naa ne dana feeñ ci biir li nga xam ne ni moom la ñuy bëgg a waxtaani sëñ Ablaye tey balaa sëñ Mor ubbi njàngam dafa am sàkk moom yàlla moo def ci voix macha allah loo xam ne da nga koy yëg yëg xasida gi waaw na maa dégg wolofal ba xam ma maa ngi ko koy tooñe léegi boo xam sëñ Saliou Touré la ko jàngal waaye wolofal ba jëmmi wol jëmmi taalif bi dafa nuroo ak wolofal bi ci triste mm-hmm. waaye ci parcours la ko la ko la la ko doon waxee gis naa itam gars yi bu ñu bëggee tooñ léegi seen soxna yi am na wolofalam boo xam ne moom la ñuy jël dugal ko ci armoire baak tubaarkàlla waaye muy histoire bu triste tamit. boo xam ne yooyu yëpp bëgg naa tubaarkàlla euh, mu laal ci waaye sëñ Ablaye tey. bala ngaa dugg ci xaside gi tënk bi. titre film bi titre xaside gi. waaw mooy tey ayab alxuraan boo xam ne. Hmm. lim tënk ak lim wundu hmm. méngoo na tey ak contexte bi. dëgg nan nga nuy ñëwee la ci tarjumaan gi. Hmm. bala ñoo ñëw ci xaside gi. waa kay jërëjëf euh, sëñ Mor Massamba ci njàng mu neex mi. njàngam ñëpp a koy bëggee. ñëpp mhm. ñëpp ku bëgg sëñ Tuubaa boo ko dégloo mu am fu mu la yóbbu mhm. yàlla na ko yàlla sàmm mu yàgg fi loolu te wér euh, laysal biru euh, day aaya bu nekk ci suratul baqara xam nga contexte bi pour nga comprendre ko mhm. yenant bi alayhi salaatu wasalaam yàllaa ko digaloon ci muy féete masjidul aqsa fële ca Jérusalem ndigal sunu borom la yëxóot yi di ko ci saboote ba amoon na lu ko metti ndax dañ koy saboote naan ko yow yaa ngi woote ne yàllaa la yónni te mënoo am sa la bopp ci ñun ngay wëlbatiku soo julli dañu féete ci ñun. Mhm. mu yàgg koo denc ci xolam rek ba sunu borom xëy nag ni ko wa min ay su xarajta fa walli wajhaka sataral masjidil haram léegi nag am nga droit foo ci féeteeti foo génne rek nga féete fii nga xam mooy màkkatal mukarrama fa ñuy dem ca Kaaba ga sunu borom jox ko ci ndigal ni ko léegi am nga droit féete foofa mu indi nag coow lu bari. ndax yahuud yi dañoo gëm ni ñoom kay féete ca ñoom rek moo nekk ci lu baax jullit yi ni ñiy féete fii ñoo nekk ci lu baax sunu borom bëgg a wane ni déedéet lu baax tënkuwul ci féete penk walla féete sowu lu baax yii muy bëgg a wax la mu ni kon laysal birra an tuwaloo wujuhakum qibalal masriqi wal maghribi mu ni déet mbaax di ngeen féete sowu walla ngeen féete penku yàllaay wax mu ne laysal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masriqi wal maghribi mhm. walaakinnal birra mu ne waaye dëgg-dëgg mbaax mooy man amana billaahi waaye ki nga xam ni jug na gëm yàlla boromam te bokkaale ko dara ngeen di wut mbaax féetewul ngeen di féete penku rek wala ngeen di féete soowu rek ndax nit a ngi julli ba noppi tey def loo xam ne kenn mënu koo wax kon mbaax fi ngeen ko tënk nekkut foofu kese du féete soowu wala féete penku waaye mbaax a ngi ci man amana billaay koo xam ni gëm na yàlla gëm gu dëgg te bañ koo bokkaaleeg dara walakin al birra man amana billaahi wal yawmil axir mu gëm bis pénc tam ndax gëm yàlla képp doyut da ngay gëm ni bis pénc day am yàlla day àtte te bis boobu du jaas te wax na ko ba tàyyi ci alquran lii dinañ daje ci bis boo xam ni ku ne la nga liggéey dina la ko fay ndax fi mu ni boo toppee occidental liste yi nga xam ni ay occidentaux lañu gëmuñu dara boo toppee seen pensée yi ñu tëral dañuy weddi ñoom ni bis pénc day am ku dee rek sa àdduna tukki na lañ lay wax waaw kon nag ñooñu seen la wax amul fondement ndax yàlla mi moom yëf yi nee na bis pénc day am jullit day gëm lool wal malaayka baax mu ngi itam koo xam day gëm sama malaayka yi muy ndaw yi nga xam maa leen sàkk du ñu tuur ndox duñu génn tànk duñu nelaw du ñu lekk duñu naan sàbbaal ak jaamu seen borom képp mooy seen lekk ak seen naan ñuy samay missionnaire ma leen di yebal ci samay ndaw ñu wuuteeg nit ñi lool ci kàttan ak ni ma leen sàkke kon jullit dëgg bu bëggee baax day gëm malaayka yooyu wal kitaab mu gëm téere bi waaye nag bu ñu nee téere bi xam nga alxuraan dafa ñëw ëmb téere yi ko jiitu woon xam ngeen 104 téere wàcc na boo demee ci téere Cheikhul Khadim sunu yaakaar bi sunu dellukaay bi gën a rëy ci téere bi ñuy wax tasaw di da nga fekk sëriñ bi ni adaduha xaddun wa yaa un unzilat minha ala aadama fii ma xat sabat noonun ala si sabnihi suma ala idrisa laamun yaa un alal xilli wi la tawreetuha qad ixtawaha muusa injiluha qad ixtawaha isa suma xawaa zaburaha daawda kama xtawaa furqaanal mahmud 104 téere ak ni ko yàlla séddale alquran bi mu ñëwee nag dafa résumé téere yépp ndax maa farat naa fil kitaabi min shay'in yàlla amul lenn luy soxal nit ci dundu àdduna ba keroog bis pénc ci taxaw lu dul def na ko ci alxuraan lépp la ci résumé amul loo ci eggul rek sa xam-xama ci eggagul waaye yàlla def na lépp ci alxuraan fat du fàtte du juum du jaawale te def na lépp ci alxuraan téere mooy waxam nga gëm kon téere yooyu yëpp war na bi yii na yàlla ne da ngeen gëm tam sama ndaw yi amoon amoo droit gëm Isa weddi Muhammad wala nga gëm Muhammad weddi Yankooba nee na ngeen gëm war na bi yii na yarantu ya mbaaxang ci gëm yarantu yëpp wa aatal maala ala hubbihi mbaaxañ ci kuy joxe xaalisam tam xaalis ba ngay joxe nag ala hubbihi ànd ak am ci soxla wax ju mat a xamal ko wa aatal maala ala hubbihi di joxe ndox di joxe xaalis damaa juum di joxe xaalis te ànd ak xaalis ba ngay joxe nga cay am soxla waaw ala hubbihi loolu lay firi xam nga tey su may mayee mbubb bàyyi ba mbubb mi furi ma maye ko boobu may safut damay xotti kay yére bu bees ful ñi la sol ko sax njëkk koo daloo ñu xam ni maye naa walla ma bàyyi ba tëbës ki jot ñépp rey seeni xar ma jël ndawal di la ko jox booba yomb na waaye nga bàyyi ba lool di jot lépp jafe ma wut am xar jox la ko koo ko joxe bu dëgër hmm. ma yor xaalis xam ni man amaale naa soxla ci xaalis bi may joxe tey ndax tey Sénégal fépp a metti waaye ma xëy suba ni sëñ Mor Massamba Diop ñëwal ñu gise mu dikk ma wàññi 10 millions ne ko sëñ bi maa la ko dimbalee xoolal loo ko def kii maye na ndax man bi ma koy may 10 soxla naa ko nag kon suñu borom boobu maye la wax ni wa aatal maala ala hubbihi muy maye xaalisam mbaaxañ ci kuy maye xaalisam di ab jullit bu dëggal di maye xaalisam àndaaleeg am ki soxla mooy ala hubbihi mu ni zawil qurbaa mu koy jox nag ña gën a jegeñ nag loolu tam lu mat bàyyi xel la ñu way jegeñaale parfois nga gis koo xam day saraxe waaye sàmba alaar lay firi parce que am na ñu ko jege ci askan wi ci mbokk gi te defalu leen dara te yayoon nañ ko nag kon bala ngay génnee jox ca bedd ma nag ki la gën a jege gën a yaay am na ñoo xam ñu ngi ànd ak yow guddeeg bëccëg am na foo ko joxe moo tax zawil qurbe wal wala yataame mooy jirim yi am na jirim ci lislaam ni mu ko gisee mooy ko baayam dundatul looloy jirim ci lislaam ndax bàyyi mooy soutenir famille bu mm. bàyyi bu dundatul rek doom ja jirim la ngay jël kon alal bi ci dimbali jirim yooyu mm-hmm. ndax loolu rek kay mbaax suñu borom ni déedéet wal masaakiin ak ñi nga xam danoo ñàkk ay pauvre lañu mm. mais nag dañu am seen dignité mënuñu taxaw di ko laaj ñu ne am na ñu ñàkk ñoo xam duñu yalwaan ci mbedd mi waaye danoo ñàkk masaakiin yooyu na leen di jox tam nee na ci xaalis bi loolu mbax la mu ni wabna sabil ak koo xam ni dafa dafa nekk doxandéem mooy wab wabnu sabil ibnu sabil mooy doxandéem kuy tukki ci dëkk lang fenn amatul paas bu ko delloo si ci këram mhm. wala ci réewam wala mu nekk situation bu metti mhm. lang fenn mhm. sëñ Hamidou Diop yërëm ko wutal ko biyee kooku mooy ibnu sabil koo xam daa nekk ci tumaranke ci aw yoon muy ko ndax loolu rek ay baax mu ni déedéet wasaa lii na ak les nécessités ñay laaj nag fii am na ñoo xam ni tubaab bu mu leen woowee les mendiants wala les gë dañuy taxaw naan jox ma ñu ngi ci mbedd yi taxaw naan sëñ bi bul dem waaye jox ma kooka mooy wasaa lii na ñay laaj dañ leen di jox mbaaxan ci jox ñoo ñu di laaj mu ni wa fi riqaab riqaab mooy firi ñi ñu jàpp njaam xam nga njaam dafa amoon jamonoy jaam mhm. ñu am ñu ñuy jàpp nag téye mhm. leen not leen tënk leen mhm. pour ñu libérer leen nag goreel jaam dañ leen di laaj benn somme bu ngeen joxee nangam ngeen am seen liberté kon ci baax demal taxaw ñooñu ba ñu am liberté am indépendance wa aqaama salaata mu ni mbaax a ngi fi ni kuy taxawal julli yi bu ñu ne taxawal julli yi nag naafila taxut a wax farataa tax farata moom bala ngay naafila farata gi day mat kon kuy di julli waxtu wi juróom ca waxtu ya ko yàlla diglee wa aata zaka wa aata zakata muy joxe azaka azaka bu nisaab bi matee nisaab mooy part bi tax nga génne azaka lu ne day am azakaam dina am ci mbay dina am ci dee nga jur dana am ci sa alal ngay génne asaka di ko jox ña ko yeyoo juróom-ñett lañu la alxuraan tudd ci sóotu taw wal muufuuna bi aadihim isa aadu mu ni nag mbaax ba tey ci koo xam ni bu diggee ak nit kóllëre man waruma fasanteeg sëñ Amidou Diop kóllëre réew mépp dégg ñuy def nii suñu émission bi kóllëre gi rafet lool jamono xëy ma koy ma koy foñ ak di ko yàq ak di ko xeex ak boo kenn dee defal nga ma koy jéem a bloqué kooku kooku gortu ko def ki nga jàppanteel te muy dëgg dara waru koo dindi dëgg la da ngeen a war a jàppante ba keroog yow man xëy mhm. kon bu ngeen fasantee kóllëre ak nit mhm. ngeen di remplir condition kóllëre wax yàlla da koy laaj ëllëg mhm. mu ni kon loolu ci mbaax la wa saabiriina fil ba'saa yi ak ñiy muñ mbaaxan ci ñiy muñ mhm. ci jamonoy ñàkk mhm. fi mu ne am na ñoo xam bu ñàkk ñëwee rek ñu découragé mënuñoo muñ dara bu ñu amee problème dépense ñëpp dégg seen kàddu te pourtant nag kay day neex ëllëg a naqari kon gaa yi dëgg mooy ñi nga xam ñoo baax dañuy muñ ci jamonoy ñàkk ndax loolu rek mu ne wa dara i ak ci jamonoy lor. Mhm. bu ay problème amee comme mbas mi wàcc. Mhm. ñëpp jaxasoo dañuy muñ. waxiinal baasi ak jamono boo xam ni day jamonoy ay xeex am. Mhm, waaw góor yàlla yu dëgg te gëm yanantu bi. gëm yàlla gëm lislaam bu xeex jotee dañu découragé di joxe ay ngànt ak sama jabara tawat ak nangam di daw. fi mu ne da koy gis sax ci taalibe di ko naan la sëriñ bi rek laa gëm. waaye bu ñu wootee léegi xel koom wut ngànt kon bu xeex taxawee dañuy taxaw. loolu mooy mbaax. mu ni ulaayika ñooñu nag mm-hmm. alladina mooy ñi nga xam ni saddaqoo dëggal nañu la ñu wax ak yàlla mm-hmm. ñooñu daal mm-hmm. saddaqoo gaa yooyu ñoo dëggal wa ulaayika humul muttaqoon ñooñu ñooy ñi nga xam ne dëgg-dëgg ñoo ragal yàlla seexul xaddim nag jël aaya boobu mu ngi ci sóotul baqara jël ko xaraf par xaraf xaraf bu nekk sëñ bi tëgg ci bay fexe ba wax ci nag ni lii mooy melaw ñi gëm yàlla ña weddi nag di ay yéefar te teg ko fitna bu ne di tubaab bi mu leen di nag wax lu kenn mësta dégg mhm. nga xam day dàq wax yi soit disant intellectuels yu ndaw yi judd 2000 <laughs> Mhm. waaw ñu ndaw ñi nga xam dañoo nekk tey ci télé yi dara tata di wax mhm. te xamuñu dara ci archive mhm. day dàq seen wax yi ndax sëñ Tuubaa moom bii communication la doon waxee tubaab da nga dégg ci xasida gi ba ci sëñ Mor Masamba duggee mu leen di yàq lu dara jarul di leen wax loo xam ni kenn mësu koo dégg daa leen waxu leen dëgg bu ngeen tuubul sawara ngeen jëm di leen wax la leen di fekk sawara lañ fay naan lañ fay lekk ci ay musiba di leen xas tuubi leen yàlla kenn du ko bokkaale du ñett di xas tubaab di xas doy waa ci biir xasida gi di lay sël biir dëgg la jërëjëf euh, sëñ Ablaye euh, kon dañuy daal di tàmbali xasida gi damaa juum léegi ci numéro sëñ Kamal bi ma koy joxe euh, M3 couture numéro bi 77 la 271 03 10 271 03 10 mooy numéro sëñ Kamal Ñang Murid Saadex di ñaan ñëpp rek tubaarkàlla jàpp ci liggéey boobu ba mu yéwén 77 euh, la 271 03 10 muy M3 couture euh, sëñ Kamal bu Cheikh Mamadou Muntaxa ànd ak euh, soxna seen ak soxna Maam Jaara seen xam naa sañ bay di moom tuwaar kàll bii moom ñawal sëñ bay di ñu roole ndax moom sama avocat sama xarit la sëñ Mor dañuy daal di commencé lillahi hamdi xam naa kon ñu da dugg rek directement ci xasida gi lillahi hamdi ma asuki abada musalliyan ala nabi ahmada يا أيها اليهود والنصارى بار اسم منتقما جبارا يا أيها اليهود والنصارى بار اسم منتقما جبارا شبعان هو العليم والشبور بالمي بارسه كل كبور أتتكم التوراة والإنجيل وفيهما تكريم وتفضيل لستم ملائس إذا لم تعملوا بما بي وزاكم مفدل بما بي ملك أتاكم موسى والمستوى وما بجائسا رجاء جنة بلا تعاتي بسنة الماء خرور ياتي رجاء الله معبود رسول سواة مع خرور وقبول إن محبة الإله لا تنال إلا بخف المستوى باب نوال النبي صلى الله عليه بالسلام بآله وصحبه على الدوام توبوا مع المساروا إلى الهدى فما لنا إلى اتباع وأقمدا وسيت التقوى لكل ناقتا في سورة النساء في خير كتاب ليس لنا ولا لكم إلى اقتواء أمري لا إنابع بالمستوى لأنه مصدق لموسى فيما به قد جاكم ويسا وجاء الله إلينا وقتا مصدق للكل والأمر أتم إعتار لله بعدا كنسلي المهدي يغفو رشدا واجرتكم بالأقيا نذير من رالق باب الفجير جزبتكم بآسرياتي وإنما الأعمال بالنيات ويل ونعمة وديق وبلاء لكافر مشرك لم يقبلا علا ورحمة وبسرى بلا لمؤمنين أخسارين عبدا كونوا إلى الإله تائبين من زرر النيران عربينا من تاب لرقمان بالإسلام تاب عليه فوز الإكرام من تاب بالإسلام والإسان تاب عليه فوز الإكرام قلت لكم هذا فإن أسلمتم لربكم من نار سلمتموه به أوالي وبه أوالي فهو القدير متعالي الوالي لكم بإسلامكم نعيم وعنده لمذهب الجيم إن إلهكم إله وائل وما له من ولد الأوال له سماء والأرض والأواء يفعل في جميع ما يساء ما ساه كان وما غاب العدم وعلى وجود البقاء والخدم زد إقاب ولا من سلسوا وفي هداياتي ما باسوا رقابهم تقود سلاسل مشترقين ولهم بلابل قلوبهم تقوى وتسوى بلاء ومن ندامة وويل ورضا وجوه مشودة بالنار بقتل الوسيلة وعار أقلال السلجلال بأخلاق بالعيرات ولا إطلاق لمتعه من السقوم ضرابهم ياتي من الأميم من لم يكن بالله زايماني مستسلما بالله ذا إعلاني عاب بي إن لم يطب زباني في النار بعد أحسن بالناس ران على قلوب من قد كسبوا وسلسوا إلى ما كسبوا باءوا بحز عتم ما بنت إلى وكلهم لنفس الأبد الوحوى ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لهم عذاب ونكال ونقم وجل وجل وعيرة ما علم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم ويل لهم تبا لهم لو عذاب ونكال ونقم ووجل وعيرة مع الألم إن الذين سلسوا وماتوا ولم يتوبوا فلهم قمات كنوزهم توابع جباهم كذا جنوبهم كذا زورهم نكالهم ينسيم أموالا اسوجوا النيران والأهوالا البر أن تؤمن بالإله ويوم الآخر في الدواء لكوني أقل بالأملاك والكتب والرسل بلا إسراك بالمال منفقا ما تياج والقرب واليتم وعلى العاج رعي جنة بإكسار الأمل عائف نيران بتخزير العمل رائم سي مسكينتي وابن سبيل وزي كتابتي إلى الله يميل مواسم للسلوات الخمس مع نوافل بخير لبس نابز بخل لزكاة موتيا وبالأهود والأقود موفيا إن كنت زاد وفي البصاي تكون في في درلاي أيضا وعينا باز لاس الخزال قزال اسم الله سادات رجال من وثب بالصدق وتقوى لدى ربهم الذي استواهم وعدا نفوسهم رادية المردية أنفاسهم تعرة سكية tàngal baat bi ci air bi waaye dama bëgg benn xàbb nga ma koy defal bu nekk bayit wi ak bisir yéen a koy bokk nag may tàmbaliwaatal ci taw ci dool bi ndax air bi buñ ko tàmbalee man dootuma bëgg kenn du ko drag moo tax ma bàyyi nga far continuer waaye ni ma ko baaxoo defee mooy danga may tàmbali laay xam bi bu ko defee xàbbu njëkk wi ngay wax Cheikh Ablaye firi ko ñu ñëw ci xàbbu ñaare ni nga ñu def ko ñu def ko ñu def ko mbiru murit léegi nag euh, air bi dafa neex ba boo ko tàmbalee du ma ko bëgg a dagg fi ne mënoon naa toog rek ba xes dégg jeex ndax ni tellement ni nga koy jànge euh, tubaarkàlla yàlla na la sëñ tubaa sàmm ñu ngi nuyu sëñ ma ndaw euh, tubaarkàlla sunu xarit la sunu wëllëre la di ko baax moom it euh, sëñ ma ndaw maraaxib waaw moom moom moom tubaarkàlla mu nit ku baax nag ndeysaan sama doom la ah ndeysaan waaw ma teg dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la de wane na ko ndax néew na néew na mu ñëw fi de moom nga kilifa jóg mu jóg moom néew na waaye maa ngi koy siyaare baax a baax sëñ Cheikh Ngounda Gueye nee na mi ngi lay nuyu ma nga ca euh, Floride ca Amérique actuellement nii maa ngi koy nuyu baax di ko ziare moom tamit di ko jox wàcc wàccuwaayam tubaarkàlla nee na maa ngi ci vol bi nii jëm Floride waaye maa ngi seetaan li nga xam ne mooy jotaay bi ñu ngi koy ziare kon sëñ Mor bisimilah. lillaahi am li ma sukri abada nee lillaahi ñeel na yàlla xam di sama ngërëm maa sukrin ànd sama cant abadan ba faw musalliyan ala nabii ahmada musalliyan ngir ma di aji ñaan xéewal ala nabii ci yarantu bi yàlla bi ahmada ki tudd ahmad yaa ayyuhal yahuudu wa nasaara Seexul Xadiim ne yaa ayyuhal yahuudu yéen juif yi wa nasaara ak yéen nasaraan yi yéen laay waxal baarastum almuntaqimahi jabaara baarastum yéen a ngi jéem a léwtoog yàlla mi nga xam ne almuntaqima moom yàlla mooy aji fayu ji képp kuy xeex ak moom aljabaar yàlla mi aji not subhaanahu huwa alalimu wasabuur subhaanahu tudd naa sellam huwa moom yàlla alxalimu mooy aji lewet ji wa sabuur mooy aji muñaakoon ji bi ilmi baarasu kulla kabuur loolu ngeen def leen ko may nag mooy bi xilmihi sagoom gi mu àndal ak mën a muñam baarasuhu moo tax muy jéem a léewtoog moon moom kullu kafuur képp kuy weddikat atatkumu tawreetu wal injiilu atatkumu dikkal na leen at tawreetu wal injiil téere bi ñuy wax tawreetu maam Moussa wal injiil ak injiilu maam Isa wa fii ma takrimu wa tamdiilu wa fii ma ta nekk na ci ñaari téere yooyu at takrimu lépp lu di teraanga wa tafdiilu ak ngëneel lasumala sayni sa lam taamalu nee na nekku leen ci dara yéen tubaab bi yéen nasaraan beeg yahuud yi feek jëfewu leen li nekk ci téere yooyu bi ma bi wasaakum mufaddilu feek jëfewu leen li nga xam ne yàlla mii gënal ku ko neex moo leen ko dénk ngir jëfe ko dekkagu leen ci dara bi bi min ko ataakum Muusa feek jëfewu leen li nga xam ne yanant yàlla Muusa moom la indi moom it ci tawreet nekku leen ci dara wal Mustafa wa ma bi jaayisa. feeg jëfewu leen alxuraan ji ñu indi leen antu yàlla Muhammad mi nu tànn ak li Isa indi ci il jiin évangile nekku leen ci dara. rajaawu jannatin bila taati. seexul xadim ne rajaawu jannatin yaakaar aljana bila taati ju ànd ak ay topp yàlla. bi sunnatil maahil xuruuriyaati. da koy teg bi sunnatil maah yi ci sunna si yanant bi far bàkkaar yi xam leen ni yaati xuróoran dina nekk ëllëg di ñëw nekk ay waru. rajaawu hubbullaahi maabudi rasul rajaawu hubbullaahi nee na yaakaar sopp yàlla maabudi rasul ànd ak bëgg a bañ yenant bi shafaatun ma xururin wa xabul shafaatun ak dese la ak manqué la ma xururin ànd ak waru wa xufóol ak ay caaxaan ak sàggan inna mahabbatal ilaahi laa tunaal inna mahabbatal ilaahi laa tunaal nee na sopp yàlla kenn du am euh, secret cofeelu yàlla te amu la bi xawfil mustawa baabi nawaal du am sopp yàlla te amoo sopp yanantu bi lu nga jaar ko ci roy sunnaam mooy tax nga am sopp yàlla nabi sallallahu ndax yanantu bi mooy ndawal yàlla yàlla yàlla dooli xéewal ak mucc ci moom bi ali wa sahbihi ala dawaam mu def ko ci waa këram def ko ci ay àndandoom ci lu sax tuubu maan wasaariu ila alhuda yéen nasaraan beeg yahood ji tuub leen yéen ñëpp gaaw te ngeen jëm ci njub fama lana ila tibau ahmada ñun ñii ngeen di jaamaarloo amuñu lu dul topp sayyiduna muhammad wasiyati taqwa li kulli naaqitab lii nag dénkaane la ci ragal yàlla ci képp koo xam ni yàlla wax naak moom ci alxuraan fi suurati nisaa'i fi yàlla waxoon naak nun ci ragal yàlla googu ci suurati nisaa'i kon nag ci ngën ji téere la wax jooju nekk lana wala lakum yaqfa kon nun amuñu yéen tam amu leen lu dul jéem a roy ndigalu yàlla amri ilayna bi hubbil mustafa ndigalu yàlla mooy ngeen jéem a sopp yanantu bi in kuntum tuhibbuuna la fa tabi'uni la yàlla wax la woon yanantu bi ci alxuraan li annahu musaddiqun li musa ndax li annahu moom yanantu bi ngeen di wedd musaddiqun li musa dafa ñëw dëggal li musa andi woon fi ma bi xadjaakum wa isa dafa ñëw tam dëggal li nga xam ne moom la yanantu yàlla isa andi woon wajaa allahu ilayna waxatam te yàlla miy dogal lépp moo ko jubale ci nun mu ñëw matal nag yanant yëpp musaddiqan kulle mul amratam bi mu ñëwee tam mu dëggal mboolem ko yàlla joxoon ndigal matal na ko sëkk isaa taaru ilaahi baada ndax wax na leen ni ëllëg dina ñëw isaa mi nga xam ni dina leen jox rendez-vous ñëwaat ci ginnaawam moom yanant kallazi mahdi yaxfu rushda ni ki doomam ja nga xam ne mooy nekk almahdi yu ëllëg ngir xeñtu njub gi mu fi bàyyi waajatum bil aqizar nasiha mu ni nag kon maa ngi leen di xamal ni jubale na leen ay waxam ci ak dëgg di leen laabire man raada qan baabil fadiya képp koo xam ne kon repoussé na dëgg googu dina mujj ëllëg ak gàcce yawettukum bi haazihil abyaati man Cheikhul Xadim mi xaadim rasul nag maa leen di ñor di yéen ñëpp ci bayit yi wa innama al axmaalu binniyaati ndax xam leen ni jëf yëpp mu ngi takku ci biir yéene yi rek waylun wa nicmatun wa bayxun wa balaa maa ngi leen di xamal ni tuskare ñeel na leen ak mugal ak xat-xat ak ay problème bu fekkee tuubu leen li kaafir wa musrik lam yuqbala dina ñeel képp ku weddi yàlla wala ku koy bokkaale feek génnul ci li mu nekk yàlla nangul ko huddan wa rahmatun wa busra abada huddan njub wa rahmatun ak yërmande wa busra ak mbégte abada ba faw li muminina ahsanina abada li muminin dina ñeel ku gëm yàlla koo xam ne ahsana mu ngay rafetal xiina abada ba muy jaamu boroomam kunu ila ilahi taibina kon dama leen di laabiire koonoo nekk leen taibiina di tuub ilal ilahi ilahi jëm ci borom bi yàlla min sarari niiraani xaaribiina su ngeen bëggee mucc ci innaha tarmi bi shararin kal xasri ka annahu jimalatun sufr min sharari niiraani xaaribiina ngir ngeen mën a daw mucc ci eh, fer ngenti sawara man taaba li rahman bil islami mu ne man taaba koo xam ne tuub na li rahmaani jox ko yàlla mi nga xam mooy yërëme bil islaami jaare ko ci lislaam taaba alayhi fa wajul ikrami taaba alayhi kon yàlla jéggal ko foofu ndax moom yàlla soo ikram mooy borom tedd nga ak teraanga ji xultu lakum haza fa in aslamtum xultu lakum maa leen di wax man sëñ Tuuba haza lii fa in aslamtum bu leen bu ngeen tuubee li rabbikum min naari salimtum bu ngeen tuubee li rabbikum ci seen boroom kon salimtum di ngeen mucc min naar yi ci sawara bi uwaani wa bi huwaani ndax man yàlla kat u aadi dinaa noonu man sëñ Tuuba bihi ci daraja yàlla lay noonoo ko may noonu waaye uwaali ci laay xaritoo bii ci daraja yàlla laay xaritoo fawa alxadiiru mutaadil waali ndax fawa moom yàlla alxadiiru mooy aji attan ji aji dogal almutaali di aji kawe alwaali moo méngoo sama lépp naymu lakum ñeel na leen ad naimu xéewal ga bi islaamikum ci bu ngeen jébbaloo jaar ci lislaam wa indahu liman abal jahim waaye wa indahu nekk na fa yàlla al jahimu sawaras jahim liman abaa ci ko bañ inna ilahakum ilahun waahidun xam leen ni inna ilahakum seen borom bii di yàlla ilahun borom la boo xam waahid kenn la amul ñaar wa ma lahu min waladin aw waalid te moom yàlla amul ku muy jur amul ku koy jur amul doom amul bàyyi law sama wal ardi wal awaa ñeel na ko ko asama moom moom asamaani wal ardu ak suuf yi wal hëwa ak ngelaw yi yafalu fi jami maa yasa yafalu mooy jëf moom yàlla maa yasa lu ko soob kenn du ko forcé fil jami ci mboolem yooyu ma tudd maa saawu kaana wa maa abal adam maa saawu lu ko neex kaana mooy nekk wa maa abaa lu ko neexul an xadam dootul am waala wujuduhu albaqaa wal xidam zaana mu dolli ko taar nag wujuduhu am gi mu am albaqaa ak des gi mu fi des wala xidam ak jiitu gi mu jiitu lépp sadda iqaabu wala man sallasu maa ngi leen di yee man sëñ Tuubaa nag sadda tar na lool iqaabu ay mugalam bu leen di mugal ala man sallasu ci ñu koy wutal ñett wa fi hudaayati ma baasu ñooñu nga xam wa ma baasu du ñu gëstu fii huda ayaati yi ci njub gi mu denc ci ay kawtéefam ak salaasilu ñooñu di ko bokkaale bu ëllëgee riqaabum seen doq ya taquudu haa dana ko wommat salaasilu ay chaîne yu ñu seene mustariqiina walahum balaabilu mustariqiina ñuy wëy yuuxu ca sawara walahum dina leen ñeel balaabilu ay nattu ak ay ay balaa xulubuum tugwaa wa tuswaa badaa xulubuum seen xol ya tugwaa dees na ko ñaas wa tuswaa te dees na ko wàjji abadan ba faw wawi nadaamatin wa waylun wa radaa zawi nadaamatin ñuy boroomi récci récc wa ak di boroomi yuuxu wara saada ak borom alkande wujuu muswadatun binnaari wujuu um seen xar kanam ya muswadatun dinañ ko ñuulal kukk bi naari ci sawara bi xatarin wasilatin wa aari bi ñu def ko ci melow njàqare wasilatin ak toroxte wa ak gàcce axlaali fil jalaali bi axnaaqi xanaa xamul leen ni seeni borom màgg gi de yàlla dinañ ko def ca seen doqee seeni li bi awlaatin wala itlaaqi da kenn du leen may nooflaay kenn du leen may ak boyal saquumi seen ñam ya nag lahum taamuhum dina leen ñeel ay ñam yoo xam min sajarati zaqoom day jóge ci garab gu ñuy wax zaqoom mu wexat zarabum yaati min alamimi seen naan ya junjoon na ko nee na ama yatasaaluun ani naba il azim ëllësi um fii muxtalifuun kallaa sa yaalamuuna suma kallaa sa yaalamuun alam naj alil arda mihaadan wal jibaala awtaadan wa xalaqnaakum aswaajan wa jaalnaa nawmakum subaatan wa jaalnaa layla libaasan wa jaalnaa nahaara maasan wa banaynaa fawqakum sab'an sidaadan wa jaalnaa siraajan wa haajan alzanna min masarati ma an sajaajan li nuxji bi habban wa nabatan wa janati alfafa inna yawmal fasli kana miqatan yawma yunfaqu fi suuri fatatuna afwajan futihat as-sama fa kanat abwaban wa suyirat al-jibal fa kanat sharaba inna jahannama kanat mirsadan li taaghina ma'aban labisina fiha aqab la zughna fiha bardan wala saraban illa hamiman mooy hamim ji sharabuhum yaati min al ndox mu tàng lay doon lañ di sol man lam yakun billahi za imaani kon nag man lam yakun ku nekkul ku nekkul za imaani ni boromu ngëm billaay ci yàlla mustasliman lillahi za ihsaani mustasliman muy boroomu jébbalu lillaay ci yàlla za ihsaan tey rafetal xaaba bihi lam yatub zabaaniya kooka xaaba dina fàddu bihi dem moom in lam yatub zabaaniya dina dem ànd ak ñoo xam ne ay bëkki néegi sawara ñoo koy womat fi naari baada axim binaasiya dinañ ko wommat ñoom bëkk néegi sawar yi fi naari ca biir sawara baada axdi im bi naas ya ginnaaw bu ñu jàppee ca ay kawari jëwam raana ala xulubi man kasabu ñooña nag seen seen sidditu jëye dañ koy tax seen xol ya dañ koy màng bu ëllëgee ñoom ñooy daan fenal yàlla ak di ko wedd wasallasu ilahum ma kasabu mooy ña ko daan wutal ñett seen boroom la ñu fàgg woon lépp day naax saay baaw bi xasiyat mi ma banat ilaa dinañu delluwaat ak seen jublu ndax ñoom la tabaxoon lépp yàlla dina ko màbbal mu ni képp kenn ci ñoom dafa nekkoon koo xam ni da doon jaamu rek bànneexam waylun lahum waylun lahum waylun lahum mu ni tuskare ñeel na leen ñoom tubaab bi waylun lahum nee na njàqare ñeel na leen waylun lahum xuru sawara lahum ñeel na leen waylun lahum waylun lahum tabban lahum nee na waylun tuskare ñeel na leen waylun lahum tuskare ñeel na leen tabban lahum merde ci ñoom tuskare ñeel na leen lahum azabun wa nakaalun wa niqam lahum ñeel na leen azabun mugal wa nakaalun ak mettital wa niqam ak mugal ba tey wa wajalun wa ayratun ma alam wajalun ak njàqare wax xayratun ak ngëlëmte ma alam ak mettit ina lazina sallasu wa maatu Cheikhul Khadim nee na ña nga xam ne ñu ngi wutal yàlla l'essence de la Trinité naan au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit di ko wutal ñett ñoom bu ñu ca deewee walam yatuubu fa lahum xumaatu bu ñu sàgganee ba dee ca te ñu dina leen ñeel njàqare yu metti ëllëg ca yowmal xiyaam kunuusum tukwaa bi jibaahum li ñu gëm nag muy matérialiste kunuusum seen banque ya tukwaa bu ëllëgee dañ koy ñaas bi jibaay im ca seen jëya kaza junubum kaza zuurum kaza junubum niki seen wet ya seen paljet ya kaza zuurum niki seen ginnaaw ya nakaaluhum yunsihimu amwaala nakaaluhum mettit ya leen yàlla dencal ëllëg yunsihimu dina leen fàtteloo al amwaala alal yi ñu doon tiitaroo ci àdduna iswaju niiraan wal awaala ndax dinañu dëgmal sawara sunu borom ak tiitaangay sunu borom albirru an tuuminu billahi kon nag albirru mbaax du li ngeen ko teg an tuumina mooy nga gëm bil wilaay ci yàlla wa yawmil aaxiri sil dawaa ngay faram fàccewaat aaya ba benn par benn wa yawmil aaxiri nga gëm tam bis pénc ziid dawaa imi borom jombalaat li kaw ni yaqan wa bil amlaaki ngir nekk gu mu nekk di aji dëggu ànd ak nga gëmaale tam ay malaayka wal kutubi wa rusli bila israaki wal kutubi nga gëm téere yàlla wàcce yépp wa rusli ak ay ndawam bila israaki bañ leen a bokkaale bil maali munfiqan ma tiyaagi àndaaleeg ngay aji dépensé bil ci alal ma atiyaaj te àndaale nga amoon ci aajo wal xurbi wal yat ma alal aaji zaal xur bi nga koy jox ku la a jege wala yut mi ak jirim ya wa ëhlal xaaji ak ñi koy laaj te soxla ko raaya jannatin bi saari lamal ngay yaakaaraale nag aljana ànd ak looy jëfal yàlla xaay fa jiraani bi taxsiril ngay ragalaale tàbbi sawara ànd ak di gàttal say mébét rahima si miskinati wa ibnu sabil ngay yërëm képp koo xam ni miskin la ak képp koo xam ni dafa taga témbe ci aw yoon mënta dem wasi kitabati ila allah yamin ngay taxaw nag ci la nga xam ni ñoom jaam yi dañ koo xaata bante ngir bëgg ku leen libéré ngay jéng jëm ci fexe nu leen libéré muwaasimu li salawatul xamsi nee na ngay wattu nag di sàmm julli juróom maa nawaafil bi xayri lamsi. ànd ak ngay def ay nawaafile muy ay ndolleenti ju lu ànd ak lënt. na sa buxli li sakaati muutiya. bu ko defee nag muutiyan li sakaati ngay joxe asaka naa bi sa buxlin ànd ak nga sànni ak nay nay baaxul. wa bil wuudi wal uquudi muufiya. wa muufiyan ngay aji matal kóllëre bil uxoodi ci li ngay diglante wal uxoodi ak kóllëre yi ngay fas. in kunta saadin wa fil basaay. su fekkee nekk nga di borom matal kóllëre ci jamono joo xam xamante ni yaa ngi ci ay tartar ak xeex takunu sabiran wa fi darai kon dangay nekk di matal kóolari di présenté wu ànd ak di muñ ànd ak ci jamonoy naataange ak jamonoy bekkoor bu méttee aynan wa aynan basila sil xisaal ba tey nee na ay maa ngi lay dénk yooyu jikko xiyaali hisbullahi saadaati rijaal Seexul Xadim nee na jikko yooyu mooy jikkoy kuréelu yàlla yi nga xam ne ay sang yi di yàlla ya man wusufu sidqi wa taqwa la daa mooy ña xam ni dañ leen niraloon ci ak dëggu ànd ak ragal yàlla rabbi muslasi tawaahu wa hudaa seen borom mi nga xam ne mooy borom bi tànnal leen boppam jox leen njub nuusahum raadiyatul mardiya yaa yaa yaa nafsi yow yow sama bakkan bi ah, ir eh, nu mu ko waxee irjien ila rabbiki raadiyatan mardiya. kon nag ta'iratun sakiya. nafsul mutmaina mooy. yaa yoon nafsul mutmaina. irji ila rabbiki raadiyatan mardiya mooy lii nufuusu um raadiyatun mardiya seen bakkan ya day nekk yoo xam yu ñu gërëm lay doon yu yàlla gërëmal boppam. anfuusum tahiratun sakiya. nee na seen bakkan ya dafay laab ànd ak sell. billaahi aminu waasim lahu su ko defee nag wa amano billaahi dañuy gëm yàlla wa aslamu lahu ñu jébbal ko seen bopp nuusum waawanu tabdilo dañuy jël seen bakkan yooyee daal koy tàggat ci ak ngëneelu yàlla di ko pexel nu ñu amee ngëneelu yàlla akramahum bi kawni baada su ko defee ñuy teral seen bopp yàlla di leen teral nag ci seen jaamu yàlla yu rafet dañuy defal fawaayilu bil ilmi wal ibaada su ko defee ñu texe bil ilmi ci xam-xam wal ibaada ak jaamu yàlla dina leen ñeel ada iq ay jardin yoo xam ni lahum dina leen ñeel ana bu ay raisin kazaalika al-awaahimu al-atraam naka noonu kazaalika al-kawaa'ibu dinañu am ay jànq yu rafet yoo xam ne ay xiik la ñuy doon yoo xam ne al-atraabu dañuy nekk way nëtëx. lahum jazaa min kariimin naafi. dinañu am fay goo xam ne ci yàlla mi aji tedd lay jóge mi aji jariñ. bari rahimin si ataayin waasi. ñiy jaamu bañ a wàcc lii ma leen digal nee na dinañ am fay gu jóge ci barin yàlla mi aji baax rahimin tey aji yërëme si ataayin tey borom may gi waasi in tey aji yaatu. mustaqim mu ni nag seen njub ga mooy nekk ci siraatal mustaqim bi fadli wala simu xayra naim ci ngëneelu yàlla seen boroom ñuy taqoo ak ngën ji xéewal wujum yowma jasaa jullit ya dëgg yi jëfe lii ma wax man xaadim rasul seen xar kanam ya bis pénc ba dafay leer nañ ñuy gis seen kanam wajhikal karim jalla nadira seen xar kanam ya nasira dinañ ci gis li wàcc hiil dinañ gis li wàcc il karim xar kanamu yàlla te gis yàlla dax àjjana aqwalahum amdun wa sukrun mu nekk way leer seen wax ya tam ëllëg cant lay doon ak ngërëm seen borom ba faw li xayri rabbil jinaani xat ada ñuy gërëm ngën ji borom bi nga xam ni moo leen di jëmee di leen jubal jëm ci àjjana lahum sarabun misyu kaafuur dinañu am ëllëg ñoom ñi tàbbi àjjana naan goo xam ni dañ koy njar ak kaafuur aynan la fi jannatin tafjir ñu am dexi lem yoo xamante ni àjjana lay daw يطوف ولدان مخلدون jàngoon ko sóoratul isa isa sóoratul waaqia jàngoon nga yatuuf wildaan muxalladoon kon dañuy am ay xale yu leen di wër ñu sax ca seen wet alayhimu isan mubassirina xale yoo xam ni dañ leen di bégal ñu leen di yónni ñuy dox seen course waqaw fi tusaar yàlla mi aji wattu ji nag moo leen di fegal lépp loo xam ne ayu bis pénc balay fa faaraqu ahlul wada wala wumi ñu tàqalikoo képp koo xam ne daa am alkande wala mu am yeddeel ëllëg mutakiina fi jilaani sarmadaa wala géey dañuy sóonu ca biir àjjana ca seen lali wurus ya alaa araa'ikal muluuka hummadaa ñu tëdd ci ay lali wurus ci la ñuy sóonu yoo xam ne nguur gu sax lañ fay am di sant yàlla istabraxul maasiya bi sundusi dañuy am ay mbalaanu sooy yoo xam ne yu tal lay doon ak mbalaani sooy yoo xam ne yu oyof lay doon alayhimu xudun bi kayin li majlisi ñu am ay toogukaay yoo xam ne day ànd ak forme bu impeccable law min allahi jazaa danañu am ca yàlla seen borom fay koo xam dina leen fàtteloo ala jihaadin xad yusakki nafsa lor bu ñu mësoon a am ci jihaad bu ñu daan def te yàlla tax goo xam day seelal seen bakkan isa raaytu sama ya basira bu boobaa nag soo fa gis da nga koy gis muy ànd ak bët yu leer naññi raayta mulkan aaliyan kabira ngay gis nguur goo xam ne aji kawele doon tey aji mag abalazina kabaru billahi waaye tubaab yi yéefar yi weddi yàlla nag bu ëllëgee dinañu perte ñoom ñi weddi woon yàlla wa yawmil axir bis ba nga xam mooy bis bu mujj bay jommalaate dañuy perte rabbi bi balika xinni kon man sëñ Bamba maa ngi lay ñaan yow yàlla ci sa ngëneel ak di ñaanal xeetu yanant bi awalu kullaha bi rahma ma fegal fegal xeetu yanant bi yépp tiit yi am ci bis penc ba wayatu ya rabbi ilayka waji yow yàlla dëgmal naa sama xar kanam jox la ko man xaadim rasul di la ñaan falyakun waliya saakinu maa ngi lay ñaan nga nekkal ma te nanga ma sellalal sama xel ilfidaaya biri daari badri nanga ma dàqal samay noon ci darajey góoru yàlla yi taxawoon badar ami wa julliya bi xayri nasri walif ñu may manal dara te nanga ma defal ci sag tab ngën gi ndimbal laka tawasaltu bi jaayil mustafa maa ngi def tawasulu maa ngi wéeru ci yow ci darajey mustafa wa sabi walam laaka kalbi siwa ci darajey saaba yi ak sa mboolem malaaka yi nanga ma wiññi lépp luy njàqare musalliyan alay bilaalima ma àndaaleeg may ñaan xéewal ci yanant bi ak waa këram shaabi rabbi duwaay yasma ak ay saabaam may ñaan tam nga déglu sama ñaan gii ma lay woo yaddaraabu bi jaayi jibril man sëriñ tuuba toroxu naa ci yow yàlla jëm si ci yow ci darajey jibril waaqi mikaayil yaa saltafati yow yàlla maa ngi lay toroxlul ci aqi mikaayil mi nga xam mooy borom ngëneel yi aji bi israafil wasrif anni wuyul sama ñaan ci darajey israafil te nga wiññi walif mu jug ma bi aqi asraayil ahli dixni ci darajey azraayil maa ngi lay ñi nga xam wéy bon lañu te ñu leen di alak ëllëg bu ñu ma jublu an ya dayfun laka abdun yaa xarib ndax in ya man sëñ bàmba dayfun gan laa ci yow laka ñeel la yàlla abdul may jaam boo xam ni yaa xarib yow yàlla mi aji jige xadimu abdika wa innani xarib man mii di la woo maay xadimu abdika maay sa liggéeykatu sa jaam bi de yanantu bi wa innani te man sañ tuubaa xarib bu ko tumuranke la ku fal idaani wa xumiyal ilaa ku fal idaa na nga xut ni nga womat ma ilaa daari salaam salaam salaam saari daain wa ilaa yóbbu ma sama kër ga di daari salaam may boroom ngëneel tubtu ilayka bil kitaabi wal hadiis damay boroom ngërëm maa ngi tuub jëme ci yow yàlla jaare ko ci alquran ak waxi yarantu fa bi ma ablee munaa yaa muxiis kon nag ma may ci darajay ñaar yooyu alquran ak sunna nag ma may lii sama mbét yow yàlla miy xettali xabliya kawnullaahi wa rasuuli nanga ma may ngir nekkuk yàlla ak yarantu bi wa isbiiliya maa alxabuur nanga ma may ak nangu ngir nekk ki nga nekk yàlla ak sa ndaw li de yanant bi ak kuréelam wajatu wajhiya ilayka yaafi maa ngi jox la sama xar kanam jàkkaarloog yow yàlla mi aji wattu di la ñaan mujahidan li kulli zi xalbin xalis àndaa léeg nag may jaamaarle képp koo xam ne xool ba dafa dafa dafa dafa bon maa ngi lay ñaan nga def sama xasida kii mu mel ni ay ay jaasi yoo xam moom la saaba yoroon di xeex maa ngi lay ñaan nga defal ma ak tàggat ci mboole mi jafe woon na ma yomb maa maa ngi lay ñaan nga dajjil ma eh, lor yi nga xam ni moom la ñuy bokkaale jëgmal ci ma walif ñuy ñëw ci sama wàll yow yàlla mi nga xam ni yaa saxal sama xéemam téem ma sadar yow yàlla nag ma nangul mbooleem loo xam ne fas naa ko ci sama xol min ya mutlaqan bi abdalil basar loo xam ne fas naa ko ak lu mu mën a doon nag ma ko nangul ci dara gee ngeen ji mindee abdalu man diyaadi alul jaadi kooku nag mooy ngën gi koo xam mas naa jaamaarloog ñuy weddi woon sayidina muhammadin sil magdi mooy sunu sang moo tudd muhammad mooy borom tedd nga bi jaayi sallallahu alayhi bi salaam ci daraja maa ngi lay ñaan nga dolli xéewal ak mucc ci moom wal yarut bi jaayi kullal yaam nanga na ma tàggatal képp koo xam ni ku bon la te soxor wajila wali jamil aali na nga dëgmal na nga jubale mu jëm ci yarant bi ak ci mboolem waa këram xayra salaatin bi salaamin aali ngeen gi xéewal gu ànd ak mucc gu kawe yaa siyaabi wasalli bi salaam nga joxal ma waa saabaam yi ko doon gunge nga defal leen xéewal ak mucc ba tey ala malaayika yoon usil kiram ak malaayika yi ak mboolem koo mësa yoonu tamit ku tedd nawaytu hijratan ilayka walahu damaa yéene man sëñ Tuubaa nag benn benn gàddaay koo xam damay jëm si ci yow yàlla wa nusratan kamil muraadi kullahu jëm si ci yow yàlla jëm ci yanantu bi kon nanga ma matalal sama sa ndimbal ak sama càkkuteef nga jox ma ko nawaytu an ubaarixul fujaa أبرارا دما يني تقلي كو كاتور يو بني ماني كي سين بير بيك من ولاسم الأبرار ما لا كوي نيان كي سدار جاي تاغا تقالي ما اك ني باخ نيا بالله والرسول وصحابي ما نغي تود كو يالا اك يانانتو بي اك اي صحابام ارجي اجلا بلا معابي ديلو نا سي نيوم يالا يانانتو بي اك صحابام سي لو غاو ديلو سي سما دك يا ربي يا خير جاي برسول yow yàlla sama borom maa ngi ñaan nga dëggal sama yaakaar li may yaakaar na nga ko dëggal ci dara darajee sa ndaw li wasux bi abadan afdal wusul na nga màng jox ma ngën ji xéewal ngën ji li may laaj ilay kasku yaa karimu xurbati. du ma jàmbat kenn sama problème yow yàlla laa koy jàmbat yow mi aji tedd maa ngi lay jàmbat sama tumuraange. faruddani mukammilan li turbati. kon delloo ma ma matal sëkk sama yéene ci sama suuf. yaa rabbi ni la kunu mushraka. yow yàlla man Cheikhul Khadim na nga xam ne du ma nekk mukk di la bokkaal. bi ka la yaa dan faqini man ashraka. du ma la bokkaaleeg la yaa dan dara dara dara kon faqini man ashraka na nga ma fegal gaa yi bokkaale. najjatani min allazina sallasu yow yàlla musal nga ma ci gaa yi nga xam ne dañ laa wutal ñett wa bi mataahi wa duuhi baasu ña nga xam ni wa baasoo ñu ngay gëstu fii mataa yi ci li may sol wa duyuri ak samay kër waqaytanim faltarum sarmada fegal nga ma leen yow yàlla tàggatal nga ma leen ba faw liwalirut kulla man tamarada kon maa ngi lay ñaan nga tàggatal ma képp koo xam ne dafa féttéerlu anta lasi kababtaani xaydiya yow yàlla yaay ki nga xam ne yaa ma daggal jéngee yëpp takaru man foofu kaani xaydiya nga defal ma ko ngir sa mbaax ak sa tedd nga rek kon yow yàlla maa ngi lay ñaan nga daggal ma jéngi antal ilahu waahidul xaar li tax ma la koy ñaan yow rek yaay borom bi yaay aji wéet yaa not lépp lakkati daaru tilka daaru kër gii di àdduna yaw yaa ko moom kër gi ñu jëm àllaaxira yaa ko moom tafaddalan alayya fii ma bi ma kon nag mu ngi noonu maa ngi lay dénk sama bopp yow yàlla ci ñaari kër yëpp rajawtu minka badal yaakaar ci yow nag xéewal yoo xam day mate sëkk. ci ñaan yaa rabbi istajib bi jaayil muntaxa. yow yàlla sama borom na nga wuyu sama ñaan ci darajay al muntaxa yanant bi. wa kullu si ibaadati wa si tuqa. ak ci darajay képp ku lay jaamu ak képp ku la ragal. aslamtu nafsiya ilayka wa lahu. aslamtu nafsiya ilayka bil kitaab jébbal naa la sama bopp jaay ko ci sa téere bi. أسلمت نفسي إليك بالكتاب وبأجيز فخني للمعاب jaaree ko tam ci ngën gi wax muy wax yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw alxuraan kon wommat ma jëmee fi ma jóge woon. لك حياتي يا سميع وأمدا nee na ñeel na la sama dund yow yàlla yaw mi aji dégg sa jaam laa laka xadimun li nabi jidla nekk naa tam kat ci sa ndaw lii nga yónni mu yarant bi ci lu wér a wér muhammadul wasilati fa salli mu ne muhammad mi nga xam wasilati mooy sama jokkukaay ci yaw fa salli na nga dooli xéewal alay bi salaam yaa sal fadli alay ci moom bi salaamin ànd ak mucc yaa sal fadli yow mi borom gëneel yi ila jamihaali wa saaba ak ci mboolem waa këram ak ay wal ijaaba ma tabel ci ak gorel ak ci ak nangu ñaan li jut bi aw bati ila daari salaam na ma tabel ci ak dellu gu ma dellu ci lu gaaw jëm sama dëkk ba daaru salaam uxra wali tuuba bi salaam àdduna ak àllaaxira jëmaale itam dëkk ba ñuy wax tuuba ànd ak jàmm léegi sëñ sëñ Mor xasida gi dama koy def première partie ak deuxième partie waaye dama daan gis ab yaat yi nga daan jeexantele ca ginnaaw ca ca bo boo daan cas ba bëy njëkk yi am na foo daan foo daan tàmbalee ca jeexantal ba damaa xamul lam tatuubu xawma yaay istibli alasra ala fi lkitaabi wa biladisi waltudi lijaami kam min ilahi sairi wa batini wa bilnabi jutliya bilkawaamini inni dayfun jaahilun xaribu وإنك الفتى هو المجيب لتوردني إلى دار سلام وبالبع الناس جميعا يا سلام لك تراتني فقير فلتونني يا خير مهل يا خدير جلي إليك لا إلى خيرك يا ربي فكن لي أبدا واحفظني يا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا ناجيتك اليوم إني موقن بالاستجابة وإني مؤمن صدقت أنك الإله وسمت ولم تجد ولا الصنور إله دعائي استجب سريعا يا مؤمن ليس له كفنات قني في الدارين كل ما يدور وبي ما سغلي كل ما يزور وجني اللهم كل ما يفيد والتقني جملة ما ليس يفيد اختر لي القيور كل ساعة والتقني يسا وعول ساعة وجي جغاري وقلبي أبدا إلى الذي تيب من الهدى اجعل جميع ما كتبت وما أكتب خير هدى المعمما وتيب وادي ولساني بالكتاب وكل يجي الخير أجر والصواب لكتب صوابا في سراب الوتام وفي صيامي وقيامي والمنام اجعل فتوري كصيامي وجلي نومي وفكرتي كالتنفلي اجعل جميع ما يكون صادرا مني رداك باطن الوظائرا كملت يوم السبت في البور خليلة فيها مهور الهور هذه خزيلة بها جادلت أعلى الكتاب وبها قاتلت مبتقيا بعار داع المولى فإنه سبحانه بي أولى أجاعد الكفار بالآيات وبالأحاديث بالاتباعات لدى شديد بتشوى والمنتقم أغادر الجلد وكل مجرم من لم يتم للاعيا نصارى مسلسا فسيلاقي نارا tuubulu bi qul huwallaahu ahad li aaxiri suurati min zaaka al adad tubuluhu bi diini islaami diini nabiil mustawa al imaami xadim taa bi amdi sil jalaali nasmi musalliyan ala al kamaali wasiilati li maaliki wa junnati muhammadin xayril baraayaa jannati نبينا صلى الله وسلم إلى عليه ذلالي وكل من تلا اللهم صل على سيدنا محمد jërëjëf sëñ Mor man daal maa ngi lay ñaanal ci doole Cheikhul Khadim yal na yàlla guddal saw fan yal na la Sëriñ Tuubaa defal teraangay àddina ak ju àllaaxira ndax li ngay jàng dafay dundal ruux ñun buñ amul woon sëñ Touba maanaam sunu passage ci àddina du am njariñ lenn rek lañ fi def mu am njariñ bu njëkk ba sëñ Mansour sañ si sax boo ko defee dañ naan tubaabe nga léegi boo solo dañ naan murite nga résistance su Cheikhul Khadim dafa yegg ba valoriser nu ñun nu xam suñ bopp nun gëmuñu suñ bopp dañoo xam suñ bopp ba tax lu dul sëñ bi neexunu boo nu tegal bala nga ko woon xam nga tegal ñaar ñaari kafe kafe ga tudd Touba la ñuy jël loolu lan la résistance la mooy xam sa bopp xam li nga war a dunde ak li nga war a mel li nga war a jëfandikoo moo tax ñun buñ amuloon sëñ tubaa suñu passage ci àddina amul njariñ xasida gi nag sëñ Ablaye dafa firi sëñ Touba lastu aqaafu dura xalqin baadama fawaltu amriya ila bi sama faxultu hasbiya rabbi waktafaytu bihi sëñ Touba da ko da ko feeñal ci biir xasida tey ñii nga xam ne ni dañoo indi archive indi résistance war ñoo xam ni kii ba muy jàkkaarloo ak tubaab bi di wax ak moom lii kenn ñemewutoon a wax ak tubaab bi lu mel ni lii te gis nga dafa wax ba muy jeexal mu signé tamponné wasilati yi li maa li kii wa junnati kii daal heure bu ngeen ko laalee rek ma jàmmarlu ngeen li fekk mi nga am jàmm yéen a am jàmm muy Seydina Muhammad léegi nag mu indi ñaari bayit ci kaw inna ilahukum ilahun wahid wa maa lahu min waladin aw walid daal di ñëw nag ci rajaa u jannatin bila taati bi sunnatil maahi xururiyaati daal di wàcc biir ne billaahi aminu wa aslimu lahu nufuusuhum wa xaawalu tafdiluhu daal ne billaahi aminu wa aslimu maa wal tuxsinu li wa ci baakin xamaa tey nan nga ñu jàngatale ñun dañoo génne woon ci njulit gi de nun génne woon nañu ci pour ñun pour ñun ay sunna ay jinleeg yi bokkulu ci sunu kii de waaye boo jàngee lii dana firndeel ni kim ki nu booleel kim nu yàlla booleel daf noo booleel ba pare teg lu nag ci ay conditions ne jaar leen ci lii te fit la doon doxee sëñ Ablaye. dëgg la euh, sëñ Hamidou sëñ Tuubaa hmm. soo xëyee di gën a gis loolu. dëgg di ko gën a gis ci mbindam di ko gën a gis ci ay waxam. Hmm. xam nga bayit yooyu nga indi. Hmm. dalay lay wan tawxiidu sëñ Tuubaa ginnaaw yarantu bi àndi saa ñu gisuñu ko ko am. waaw yarantu bi. da dul teggin kenn di ko jiitu ci dara. wax mhm. ah, ndax sëñ Tuubaa moo tere sax kenn di xalaat ci moom nurule ko ci lenn daal wala di ko mhm. romb ci dara. Mhm. waaye da lay wóor ni ginnaaw yonent bi alayhi salaatu amul ci islaam tawxiid ju mel nii fu ñu ko dégg kuy binde lu mel nii. nga xam ni te ci contexte bi metti la koy binde fi mu koy binde yombul léeg-léeg nga gëm dara sax di ko nëbb. ndax maslaa. waaye moom gëmam yàlla dégg nga li mu wax. yàlla laa gëm duma ko bokkaale duma ko wutal ñaar duma ko wutal ñett daal di wax ak nasaraan bi joxuñ leen ni leen na ngeen jël yàlla def ko muy seen borom ngeen tuub jëm ci om ci lu gaaw mhm. su ngeen ko deful ci mbugal yu metti ngeen jëm mhm. ndax yàlla dara nuru ko dara melut ni moom te loolu mooy seen borom borom la boo xam ne yu wéet la dara nuru ko wa maa lahu min waladin aw amul doom amul ku ko jur ku yàlla dañuy wax fi nga commencé diwa ko jur baayam nii la tudd ndayam nii la tudd wala moo jur diw sàngam yàlla mënoo ko wax ci moom amul tàmbali amul commencement amul foo xam nga yàlla fii la commencé fii la nanga mhm. fii lay yem ku yàlla da mën a wax ni ndax sàngam la ñëw ndax sàngam la génn àdduna yàlla yooyu nekkul ci moom mhm. nga xam ne kon fi sëñ Tuubaa jàngalee tawxiid boo demee ci mawaahibul quddóos mhm. day leer ci sa bopp ni ni sëñ Tuubaa jàngalee tawxiid amul ku ni mas a jàngalee tawxiid bu rafete noonu moo tax murit dëgg boo xam boppam moom. Mhm. day génn ci bokkaale ba set. Mhm. génn ci boole dara ak boromam. ndax lim lim cee toob sax daf ne dafa giñ. billaahi aminu wa aslimu lahu waaw nufuusahum wa xaawalu tabdiluhu waaw dañ ne na ngeen maa ngi leen di ñaan na ngeen gëm yàlla seen borom gëm ab yanantoom waaw na ngeen gëm yàlla aminu billaahi na ngeen gëm ci yàlla wa aslimu lahu mhm. te ngeen jébbal ko seen lépp te loolu wax yàlla la nufusuhum yàlla moo ne woon yaa ayyuha alladina amanu taqullaha haqqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun wala aslimu lahu loolay firi ci aala imran yàlla moo ne woon maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla ne dëgg dëgg ragal yàlla waaye bu leen dee mukk nag dajeeg man lu dul ngeen jébbalu ci man jébbal kooku mooy ngeen jox ko seen lépp bañ a desal sëñ bi loolu la waxaat ak nun jox leen lépp yàlla bañ ko wutal ñaar ngeen jébbal ko seen bopp génn ci pexe yi seen pexe na nekk ci wuti ngëneelam ndax moo yor lépp foofu loolu la wax ak jullit yépp nga xam bi mu koy wax dafa laabire ñëpp la waxal ba ci yéefar pour ñu wéetal yàlla kon fii la sëñ Tuubaa nekkoon te moom miy digle li wéetal yàlla gi moo ko gën a def ñëpp moo gën a wéetal ñëpp yàlla nee na musuma tiit wala ma jàq wala ma jaawale ko wala ma boole koog dara ku dul sëriñ Tuubaa di nga soxlaal nit ñi ci xaalis ak nu ñu lay dimbale moom matériel la njëkk a teg fële soxlawu kenn du ko jox dara pension bi ko tubaab bi doon fay di cinquante francs doon suul tey boo demee Gabon jumaa ji fa gën a rëy mooy fi mu doon suul xaalis bi kon soxla ko mhm. yi yàq jikko yéeg lépp mooy xaalis mhm. sëñ Tuubaa daaw ko laal mhm. nee na ñàkk koo laal moo gën a yomb ëllëg ci layal ko fii ko dugal laalu moon koo gën a yomb kon tawhiidam da koo wane ci léppam tawhiidu sëñ Tuubaa du ko bokkaale du ànd ak ku ko bokkaale ñii wax naan dañuy génn ci julli bi ñoom dañoo dof sëñ Tuubaa defar na ñoo xam ne waxuma sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dañ koy teg nee waaye ñi mu defar gërëm leen sëñ Daaru Assane Ndiaye. sëñ Daaru Assane Ndiaye. na ñaari malaayka la yàlla boole ak man. kenn ke nekk sama ndijoor kenn ke ne sama càmmoñ. kii mooy bind toyaaba yi may def sama dund. kii mooy bind samay bàkkaar. kii bind toyaaba xaw ma dina am déet. waaye kii bind bàkkaar moom mën naa waat ni ba sama dund jeex du ma bindal bàkkaar. loolu koo gis fenn ku ko am. assurance la. loolu ku ne ko ñemee wax. foo ko gis fenn. ci kër sëñ Touba taalibi sëñ Touba la. moo mën a taxaw waat moo mën a taxaw waat man kenn du ma bindal bàkkaar. Serigne Mouhamadou Lamine Gaye Firdawsi. Mm-hmm. nee na tëdd ci kusu bàmmeel du ma teree fay nuyoo. même buñ ma robee ma tëdd sama kusu bàmmeel it ku ma ne asalaamaaleykum wa waaleykum yooyu ñoo dawoon sëñ Touba. nga xam ni sëñ bi yar na ko ci tawxiid juré joo xam ni moom wax na ni bu sëñ Touba woote woon sabar ku demul wàll ci sabar gi dem sawara mu ne loolu leer na ma waaye du tax ma wàlli ci sabar si si sabar si xoola boo boo boobu melo mu ne bu sëñ Tuubaa woote woon sabar ku demul ci sabar si sabar ji fecc ji da dem sawara waaye man du tax ma dem ci sabar ndax ni ma yare kon waxin la sëñ bi du ko woote waaye dana bu woote woon loolu sax wóor ku ca demul di nga dem sawara ndax yàlla jox na ko lépp waaye du tax mukk ma dem ca ndax melaw yi ma sëñ Tuubaa yare muy lislaam ju set wicc ju raxul dara xoolal sëñ Mbàkke Buso xoolal sëñ Mbàkke Buso nga xam ni bi ko sëñ Moussa di woy dani ko xafat nga bidaa ba rafaa nga sunna nasab nga fardan ba sukkoon nga janna grammaire la ko woy waaye dani ko xafat nga bidaa bidaa mooy lépp lu ñu sos ci ginnaaw yanantu bi te sos gi amul kenn ku ko mën a jox cëslaay bu leer ci alxuraan kenn mënu ko jox cëslaay bu leer ci hadis kenn mënu ko layal ci boroom xam-xam yi maandu kooka dañuy wax ni bid'a la lu ñu sosalu amul benn cëslaay loola nag la ko wax ni yow sëñ Mbàkke Buso da nga koo xafat xafat mooy àtte bi tax nga maas baat ci suuf da koo kasra kon yow lépp luy bid'a ci suuf nga ko teg mosoo koo laal yow sëñ Mbàkke Buso rafaa nga sunna rafaa mooy maas kaw lonk mooy yëkkati mbir lépp luy sunna da nga koo yëkkati ca kaw nasab nga fardan lépp luy farata maas ka yat nga ko def ca nga taxaw te mosoo ko wàcc ba sukkoon nga janna sukkoon mooy masque néeg dëkk nga aljana ni ko yow rek lañ xam ni su bàmba doon naat nga mën a def man awtu naat ak man awut ñooy niroo dañuy làng dend dégg nga mu ni ko yow rek yaa ko topp ba mën koo wuutu nga xam ni sëñ Mbàkke bu sa doy na ci yooyu ma wax xoolal maam Mor Jaara borom saam moo tax nañ bàyyi sëñ Tuubaa nañ ko teg nee di wax rek ci ñi mu defar ñoom ni nu mel. ñu mën a assurer seen diggante seen bopp ci tawhid joo xam. ba pare di xaar ngërëmul sëñ bi. di xaar ngërëmul sëñ bi doo ko gis ci keneen. ñoom bi ñu am doo ko gis ci keneen. te boo ñëwee ñu la ginnaaw suñu tawhid bépp sëñ Tuubaa la nu yaakaar dañu. dégg nga ginnaaw suñu tawhid juree jooju sëñ Tuubaa la nu yaakaar. moom la ñu bëgg ngërëmam. bu yëpp dajee daal nga xam ne yi war a daje ci nit ki jaamu yàlla xam nga sëñ bi sëñ xoolal Cheikh Abdoulaye Seye mu nga nekkoon fële fi tundu jandeer naa ñëw léegi sëñ Mor Dia mhm. sëñ Mor Dia xam nga màggalam day la 30. dëgg la tuuti. Mhm. sëñ Abdoulaye Seye taalibi sëñ Mor Dia la. Mhm. sëñ Mor Dia de taalibeem. Mhm. Cheikh Abdoulaye Seye taalibi sëñ Mor Dia sëñ Mor Dia taalibi maam Cheikh Ibra Fall. maam Cheikh Ibra di taalibi sëñ Tuuba. mu door a yegg ci sëñ bi. door a egg ci sëñ bi. Cheikh Abdoulaye Seye nee na. lëggéeyal na yàlla ci jaamu ba mu xamal ko mu ngi nekkoon fii kër Ndiaye Lo suuf sépp ci àdduna bi pépp suuf yi ci àdduna bi yépp lim bi la xamagul ak lu ñuy sàbbaal woon tur yàlla la ñuy sàbbaale borom loolu la xamagul tur bi dañu ne bala maa faatu xam ko bala maa faatu xam sëñ Touba ñaar dox na ci. waaw te diggam sëñ Touba ñaar dox si Abdoulaye moo jur ñoom sëñ Cheikh Seye ak rakkam sëñ Fall. Cheikh Abdoulaye Seye taalibe la ci sëñ Mor Diabu Ndiab sëñ Mor Dia di taalibe maam Cheikh Ibra nga xam ni sëñ Moussa Ka nee na euh, Momar Dia moom jandeer mag jóob la. du njar ci soowu làmp faal mbaa nit la dafa jeex tàkk murit saadix la la wax aalam la boroom sañ-sañ la murit saadix la du njar ci soowu làmp faal mbaa la yooyu yépp mu boole ko ñun la taalibi Cheikh Ibra la te bi bi bi yàlla dogalee mu ñëw sëñ sëñ maam Cheikh la Fall indi ko ci sëñ Touba sëñ Mor Dia maam Cheikh la Fall ko indi ci sëñ Touba. Mm-hmm. nan la ko indee sëñ Mor Dia Njar yàlla dafa dogal baayam baayam di sëñ masaar Dia ndayam di soxna Ngóone Sarr mu gane àdduna 1877 bi mu tollee ci jàng nijaayam bu ñuy wax sëñ Daawda Sarr yóbbu ko yoof mu def fa ab diir mu jële ko fa joxe ko fu ñuy wax kër Mataar fële ci wetu Pout mu ne fa nekk ci sëriñ bu ñuy wax Cheikh Ibrahima Wade Cheikh Ibrahima Wade seexu maam Cheikh Ibra Fall la kooku tam mbër la woon fi ne Cheikh Ibra bu ma la jàppaloon ay mbërëm mën naa ci indi cinquante fi ma toog ñoo xam ni kenn ku ci ne mën nga àtte jamono te ay taalibi Cheikh Ibra la sëñ Ibrahima Wade nag moo yoroon sëñ moor Ja ci kër gi mu nekk ci ndongaam nekk boobu tuut tànk nekk faak moroomi noo ngay daara am génn guddi sëñ Ibrahima Wade génn dem nee nañ ci jàkka demoon am ñu ni déedéet dafa demoon am lu mu doxi li muy jël si fekk guddi jot muy taw taw bu foor taw bi di sotti di sotti ba mbedd yépp dafa taataan ak ndox waaye bi mu duggee ci ëtt kër gi surtout tànk yi tëddoon ak sëñ moor ja muy seen moroom ñu tëdd di nelaw taw bi di si seen kaw ñépp daw tëdd sëñ moor ja des fa di fa nelaw ci ëtt kër gi sëñ Ibrahima Wade dugg gis taw bi taw ba taataan li wër sëñ Mor ja njar yi lépp ndox laalu te boobu mu ngi toll ci jàng alxuraan li ko wër lépp ndox laalu moom nit boroom gis-gis la mu ne ah man sama ndonga lii mu ngi may bëgg a jaaxal kii moom ndax nit kese la mm-hmm. daal di koy fëgg mu jóg mu ne ko jugal nga tëdd ci biir mu tëdd moom sëñ Ibrahima Wade mu wuti ci ndox ñëw roose ko fi sëñ Moor ja tëddoon ngir bañ a feeñal secret hmm. mu mel ni dafa taw ci kaw mu sotti fa ndox dal ni nag ah sama ndonga lii mat naa xool mbiram kon nag bu guddee dinaa listaxaar mbiram xëy suba ni soxnaam yëpp bu ko kenn yónneeti hmm. sëñ Moor ja ji mujj tuuti la woon hmm. ku tuuti la woon bu ko kenn yónneeti sama ndongo loolu bu ko kenn yónneeti am kenn ci soxnaam yi ku ne ko ah ku fi dekk kay nu yónni la ñu ngi yónni ay moroomam duñ ko yónni mu ne ah da ngay tontam génnal kër gi ñoom la ko yeewe waaye kii kenn dootu ko yónni bi mu tëddee guddi di xool mbirum sëñ moor ja ñu wan ko garabu benteña garab gu mag googu ñu ne ko fii mooy péncum sunu borom yàlla fii mooy yoon bi góoru yàlla yi dox garabu benteñi gii fi la góoru yàlla yi war a pour àgg mu gis ndonga yu bari yu mu xam ñëpp di ci yéeg mu gis sëñ Mor ja ci gént gi sëñ Mor ja ñëw dugg ci cëgg bi tron garab ci dem ba ca ñoom baxtal ga taxaw ci kaw mu ndeke kii xajatul fii ba mu xëyee suba la ko jàpp ànd ak moom dem ci Cheikh Ibra ndax moom Cheikh Ibra la yaakaaroon sëñ Ibrahima Wade laa la wax dem ci maam Cheikh Rafal ba mu ñëwee ànd ak moom nuyu maam Cheikh Rafal maam Cheikh Rafal ni jàkk xool sëñ Mor ja daal di reetaan ni ko ah, lii ko fi mu ne ko noo ko fi indi faal sunu taalibe mu ne ko Ibrahima Wade mu ni faal yaakaar nga ni kii ëpp la taalibe mu faal lool yow mi nga xam ni dara ëpp la taalibe jox naa la ko sa taalibe moom am si yàlla faal ne waaw kay baax na liggéey loo leen nag xam nga fële ca jandeer mu féete woon dafa nekkoon tund woo xam ni dafa jafe woon a am jëmbët mu taxaw bari woon ay bàkkaar foofa dafa bari woon bàkkaar yu fa def ba pare njëmbët daawu fa taxaw maam Cheikh Ibra Fall nag liggéeyloo leen ñuy liggéey nag fekk Cheikh Ibra Thiès sëñ Mor Janjar jël ñetti sayu matt gàddoo ko fële ci tundu jandeer war koo yóbbul maam Cheikh Ibra Fall Thiès da koy dox nag booba jamono dox a xew jëmm yu tuuti la woon mu yenu ko di dox ak moom ba coono dab ko avant muy dugg ci montagne Thiès yi mu sonn lool fekk na mu wutoon as lëf ci mbar boof moom la téeñoo woon teg say matt yi ci kaw bopp bi li jëmm jii tuuti tuuti mun damay liggéeyal sama sëriñ bi Cheikh Ibra bi mu ko gàddoo nag dem ba sonn wàcce ko teg ko di noppalu ni gam-gam nelaw dikkal ko bi muy nelaw euh, mbar bóof mi moo ko yee maa la ko wax mbar bóof mi moo ne ko pëkk mu jug mu ne ko yow yaa tala nelaw man de talumaa nelaw yaa ngi ma tàqaleeg samay mbokk di liggéeyal sa sang bi eggagoo bëgg maa sànq fii tey ngaa jug àggale léegi nga àgg sa sang bi loolu def ko xaal mu jug yanuwaat matt bi ñetti say matt yi teg ko ci kaw mbar bóof mi wuteeg moom kees euh, bi muy agsi mu ngi fekk maam Cheikh di bàgg naan sëñ Talla ak séegu la <laughs> moom la doon sëñ Talla sëñ Mor Talla ak séegu la mu ñëw mu daal di tuuti te bari laa koy woowi tuuti te bari ndax sëñ Mor ja jëmm ju tuuti la woon waaye dafa garaaw pas-pas mu tuuti te bari mu ñëwee mu wàcce ko maam Cheikh Rafal téye boppam ba di ca ñaan di tifli ne ko tey laa lay yóbbu ci Serigne Touba. Mm-hmm. ñu ànd ñoom ñaan nag dem ci Cheikhul Khadim mm-hmm. ba ñu ñëwee Serigne Touba ni maam si Arafal ndonga li nga àndal foo ko jëlee. dañ ci waa dañ ko jàkk ni ko ndonga li nga àndal foo ko jëlee. fekk na maam si Arafal bi mu ko eh, ñaanalee ba noppi dane ko mboolem ruu yi nekk diggante diggante poowu ndar ak làmp ngor lii rëy na de. poowu ndar ba làmp ngor bis ni ki tey sëñ Mor gërëm naa la mboolem ruu yi fi nekk. bu la neexee ñu jaamu yàlla ba ëllëg nga lakk ñëpp te kenn du la ko laaj bu la neexee ñu jaamu yàlla ba ëllëg nga texil ñëpp te kenn du la ko laaj maa la ko rafaatale ruu yëpp loola neex def ci ruu yi moo tax benn wàll yu mosu ko ñeme da daan fàtt ma ndax wàllu bu amoon kattan la loolu ma wax mag ñi xam na ko maam Cheikh Rafaal bi mu gërëmee ñaan ci kawar gi ba noppi nag ne ko nañ dem ci sëriñ Touba ba nu agsee sëñ Touba xool ko rek muñ ni ko Cheikh Ibra foo jële kii mu ne ko Faal mu ne ko Mbàkke ci sa mbaax gi rek la nu feeñoo sëñ Tuubaa ni ko ndax xàmmee nga ko mu laaj ko maam Cheikh Ibra ndax xàmmee nga kii maam Cheikh Ibra ni ko soo ma ko xàmmee loo mbàkke ma xàmmee ko waaw mu ne ko am na jamono joo xam ne maa ngi yow nekk gunu loolu la sëñ Tuubaa Cheikh jamono ba nu nekkagul nit ñëwagunu ci daaru duniyaa jëmm jii fi toog mooñ daan ñetteel maag yow dégg nga li ma la wax jamono ba ñu nekkagul ñëw daaru duniyaa maag yow jëmm ji mooñ daan ñetteel daal ni kii na dellu jandeer te bu demee mu nekk fa nibraas di làmp di leeral ñépp ndax jandeer day suuf soo xam ni njëmbat nangu fa te yàlla dogal na ca jandeer tam bàkkaar bari fa su demee dina faxas bàkkaar yépp te lu ñu fa jëmbati mu nangu yéen ñépp xam ngeen diggante jandeer jaar ay toor jaar ay ay mbijjëm jaar ay kër mbir ndaw jëm ay fële ca laktanment jël bayax ah jël xoola dëkk yooyu yëpp ba keroog ay àgg ay jogo ne fa mbay nangoo léegi légumes yëpp fa lañ koy jëfandikoo aajo bu waay mosu bi sëñ moo jate eh, fajal la ko nga xam ni njabootam waxuma la moom njabootam aajo bu ñu fa mës indi mu faj ko sëñ móot jajjaan sëñ xaala ja mi nga xam ne moom Seex Ibra Fall la ko tudde Ibrahima Xalilullah sëñ Saaliwu ja sëñ Moussa ja sëñ Moussa téere xoola doom yi rek ku ci ne daa fees jël sëñ Abdou sëñ Abdou bu sa ja xamal naa ko baax ñoom ñëpp ay fajkati aajo la te sëñ Mor ja njar 60 la fi jóge 1877 la gane àdduna génn 60 kon defarub maam Cheikh Rafal a ngoog. Mm-hmm. le 30 mooy màggalam. Mm-hmm. incha allah danañ ko waxtaan. incha allah dama ci doon barkelu loolu rek. incha allah di ziar bu baax sëñ Ibrahima Fall. sëñ Ibrahima Fall Touba Forage Touba Forage. Mm-hmm. di nuyu bu baax xalifaam na xalifa sëñ Mor Janjar. di sëñ Modou Aminata Sey Dia. ñu ngi koy ziar di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ci barke sëñ Mor Janjar. waaye itam di ñaanal. sëñ Alioune Dia porte parole ba di ñaanal sëñ góor Dia ma mhm. nga xam ni sëtam la waaye borom taxawaay la dëgg la eh, di nuyu sama xarit sëñ Ousseynou Dia mu sëñ Modou Dia dëgg la di ko siyaar bu baax tabarkalla jërëjëf sëñ Ablaye wi am na solo ñu ngi nuyu yaar ziyaari njabootu sëñ Modou Dia gépp teg ko ci loxol sëñ Ibrahima Fall Touba Forage ñu sunu xarit sëñ Saliou Dia maa ngi koy ziyaar sëñ Moutalla Dia di ñaanal sëñ Abdou Boussa Dia suñu xarit la woon ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm mhm. te xare ko ak ñana ya gën a kawe ku baaxoon Euh, di ziare sëñ euh, Ngor Dia moom it di nit ku sell ku baax ku suñ borom may ab cër. Mm-hmm. ñu ngi koy ñaanal soxna Mame Boussa Fall Couture mi ngi fii ci euh, Ouest Foire ñu ngi koy nuyu di ko ziare borom Darou Salaam. nee na ma neel sëñ Ablaye moom tey moom faaw ma mos si sëñ Gaawa ndax ñu nit la 30 la. xam nga màggal Darou Salaam la 30 la. Mm. benn événement bi sëñ Touba mos a fekkee présidé ko mooy màggal Darou Salaam. waaw mm. moo ko fekkee moo ko présidé. Mm. waaw dana fu ngeen ma dégg dama faa jaar Darou Salaam tekkee samay bagage sëñ Gaawa woddu garab ya di teeru Cheikhul Khadim ku am ku sëñ Tuubaa amal audience 30 minutes Daaru nga ko amee ak moom dëgg la de waaw ba ba nag foofu moom da doon jaam yàlla moom da doon tëju ndax weeru koor waaye ba mu ñëwee Daaru Salaam nag la daal di wàcce kaala ga tàmbalee bi naka naka njaboot gi ana njàng mi fu mu toll rek ngay dégg ba jot mu dem saafonte ku ko am Daaru Salaam nga ko amee kër sëñ gaaw sëñ Mor wax na ko léegi lif tax waru danii ilaa daari salaam wa bin fangin naasa jameehan yaa salaam loolu nag la Cheikhul Khadim may sëñ gaawaan loolu nag sëñ soxna maam Boussa Fall nee na faaw nga jaar ci ñu ngi ziare Pa Fall eh, di nuyu waa groupe kenn sëñ bi nag ñëpp maa ngi jot léegi eh, message yi ci YouTube bi ndeysaan soxna Bintu Jaxate eh, mu sëñ Murtala Jaxate soxna Nogoy Ñang tubaarkàlla sama xarit soxna su gaawaan Diop tubaarkàlla soxna ñaaña Diop fële ca Paris ñu ngi koy sant ak ki nga xam mooy soxna Anta Samb ma ngi ca Sawanteñoo ca Texas ñu ngi koy sant sëñ Aliou Samb ak sëñ Omar kan ballaay sax ndeysaan nee na ma nuyul ma sëñ ma Massamba Diop ak sëñ Abdoulaye Diop Bichri waaw ku baax ñu ngi koy ziare bu baax a baax di ko ñaanal waaye eh, ki nga xam ne nii mooy eh, eh, soxna Aji Diop ma ngi ca fëlërit ñoom ñuy waajal seen bisu xasaayit boobu nee na mi ngi lay ziare sëñ Jili Lam mu ngi lay ziare ah tubaarkàlla sëñ Medoune Saw conférencier nee na sama sëñ moor dañ muy nuróoleeg moom ñu ngi koy ziare soxna Sooda Jaw Philadelphie moom mi ngi message waaye da am ku la bëgg sëñ Ibrahima Kare miy jàng si Ibrahima Diop an machari daf laa bëgg ba mu teew sago moom sax dinañ ko mos a nag invité ma waxtaan sëñ Ibrahima Diop démb dama ko damaa kii sëñ Mor mu ne ma émission man sax boo ma doon invité émission nga invité Mor ma ko dàqal waaw ndax ñi la bëgg dafa dafa dafa bari te ñoom ñëpp eh, ni nga mel ci sëñ Touba moo tax ñu bëgg la eh, sëñ Abdou Samb taalibe sëñ Abom si Blaat ñu koy ziyaare moom it nee na bëgg na ndeysaan eh, sëñ sëñ abdu Allahat Seck moom sëñ Saliou ture nee na mi ngi lay ziare nee na ma ziaral ma sëñ sëñ sëñ soxna ma am say wàdd nee na mi ngi lay ziare moom it eh, tubaarkàlla eh, ak mboolem ñi nekk ci kuréel eh, kenn du sëñ bi ñu ngi nuyu soxna Marème Gaye sunu doomu nijaay la doomu nijaay boo xam jaam sang boo xam du joxe dara maa ngi koy nuyu baax a baax waaye dara doo ko jox yàlla na waali dee ñu ngi ziar baax soxna Ami Thiam yaay Fall Sakkoor am na mbokki taalib yoo xam ñu ngi ci youtube bi ñoom it ñu ngi leen di nuyu euh, Pierre Moussa Thiaw ñu ngi koy ziare euh, muy sunu xarit di sunu mbokkum taalibe moo xam ne kuy sonn ci euh, sunu jëmm la man ak sëñ Ablaye ñu ngi koy ziare bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal tawfiix am na ku ne ma tey moom da ngaa dem ndax kii bi sëñ Ousmane Dia sëñ Ousmane Dia billaahi maa la raw barke sëñ Tuubaa maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax soxna ay nag mi ngi lay sànni xeer euh, waaye sëñ Mor Masamba soxna Nogay nee na tey moom téewuma sama bopp tey nu may téye sama bopp sëñ Mor mii ne fii ah, ma bëgg di ma bëgg yóbbu yomal xiyaam euh, tubaarkàlla euh, soxna Ayda Saaliw moom sëñ Saaliw nekk fii ci parcelle di ku baax dikku ku murit saadix ñu doon def plateau ci koor gi mu ñëw ñu fi nekk ñëpp mu yëkkati ay mbubb jox leen defal leen teraanga te sëñ Touba rek tax nag mu ne ma dama leen a jàpp bëgg leen te sëñ Touba tax neel sëñ ma Masamba moomu jàpp naa ko bëgg naa ko te sañ Tuubaa rekk tax te it muy ku ku ku ku ku baax ku mat a jàppanteel ñu ngi koy nuyu baax sañ Mbàkke Ngom euh, sama soppe fële ca Thiès maa ngi koy nuyu baax a baax euh, di wax rek ni euh, incha allahu taala màggalu daaru salaam gi ñu ngi koy waajal la 30 ni ki màggalu njar xam nga ñaari bis yi dafay tombe saa su nekk am nañu yéene nag taxawal bis boo xam ne ni sant Cheikhul Khadim lañ koy def lañ koy lañ ko lañ ko tuddee di ko fàttaliku muy juillet. vingt 1927 ak deux juillet 2021 incha allahu taala euh, fas nañu yéene euh, ko initier dimanche euh, la 11 juillet fii ci Masaalikul Jinaan dinaa ko ànd ak groupe kenn sëñ bi yëpp damaa bëgg ñu toog 4 heures de temps wala 5 yoo xam ne télévision Sénégal yëpp foo jàpp sëñ Touba ngay gis comme neex ak comme naqari nag moom rek ngay gis. dama bëgg nag murid yi bëgg sëñ Touba di ko dund. ñëpp ñëw ñu bokk bis boobu sëñ Abdoulaye Diop Bichri sëñ Xaadim Kebe sëñ Garna Mesre sañ Saliou Samb sëñ Xaadim Guèye sëñ Alaaji Cheikh Diom Mbaye sëñ Akasa ñëpp laa ciy invité rawatina nag panel ya fa war am ak kilifa yi ba pare ma bëgg beneen aspect boo xam ne nii maanaam kilifa yoon wi yëpp mën a daje benn jataay ñi nga xam ne ñi yëngu ci économie ñu bokk benn jataay wane force bi ndax Cheikhul Khadim Jules yëg léegi yoon wi dafa am évolution boo xam ne kuñ la wax ne jógee na fi psychologiquement xel mënu koo nangu te boobaak yoon waa ngi dox tey la gën a yokk euh, kooku nag dañ moo bëgg nu fàttaliku ko Euh, sant ko ñaan ci suñ borom taas nu itam ci barkeem waaye nag nu ndax lim nu defal mënaluñ ko suñ bopp te it suñuy dooma nu gën a bëgg sëriñ bi te it buñ ñëwee ñoom noo ñuy gën a yéeg loolu nag tawféex la joo xam sëñ Tuubaa nu ko defal ma fas ko yéene ànd ak groupe kenn du sëñ bi sëñ daam euh, maa ngi euh, ziar baax a baax sañ Ndongo Thiam ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom it nee na émission bii musu fee am sëñ Ndongo Thiam nee na émission bii musu fee am Euh, bu Kaolack ndeysaan jànkatu xasaayit bu mag la léegi rek maa ngi gis am njàngam balaa ñuy tàmbali soxna faat kenn Diatara ma ngi ca New York moom it euh, di doom sëñ Moustapha Diatara nee na mi ngi topp jotaay bi mi ngi leen di sant sëñ sëñ sëñ Mor balaa sëñ Ablaye ñëwaat ci Daaru Salaam ji ndax soxna maam sa Fall moom bu ñu tudd Daaru Salaam tey dara du ko doy sëñ Sidi sëñ Amidoun maa ngi koy nuyu sama turandoo euh, ak sëñ As waa kër gi yëpp maa ngi leen ziyaare sëñ Babacar Mbacke mu Kaboro ak mbooleem ku bokk daaru salaam rek maa ngi lay jox wàccuwaay wi nga am sëñ galasum sëñ Modou Roqee sëñ Modou Mamoun ñëpp ziar naa leen ndax euh, bëgg gi nu bëgg daaru salaam ak ni ñu koy bëggee euh, soxna assu euh, moom sëñ Zubairu moom maam Thierno maa ngi koy ziare sama soppe sama xarit doftal sëñ Amsatu bu baax a baax sëñ Mor damaa xamul nag danga may waxal tuuti ci sama olofal ba xawma ma danga may dugal tuuti ci raaya mais dama bëgg daal nga jàngalaat ma tuuti te loo ma mën a jàngal bu dee xasida sofal ma ci sama olofal ma léegi nag su ko defee nag ma door a ñëw ak yow ci question yi balaa sëñ Ablaye ñëwaat ahlul fasaati turan bi sanaamaluhu walaysa yudruk bil tayaaru kawl wazaanu والبوزير قد برغا وكلهم سروا نور وأسرار قلبي له في تعب الجسم تكرار لأنه للهدى ونور جرار يلا مجسمي عذابا في الجلاس بلا علم ولا عمل والنفس قرار ما زال للخير يدعو ويجسبه ولسادات لا بلوى وقرار يلا ما وهو في غار وبقبل بإذن ربي والمحبوس مبرار خلق جسمي حام القلب يلبه من المناخب تزيف وإسرار فاليوم وجدت وجهي تائبا أبدا لله توبة من أدنى وغفار غفار في صلابي وابقك الكبدي بمن علي لتركي شهر بمن يخاطبني في شهر رودته بيتان الخول من بالولف أمار سلما طيب وإن ستت بك اللعار وعالم دوني سال وأوهار laa yamna'naka buudun min siyaaratihi inna al-muhibba liman yaxwaa sawaaru ilayka qad tubtu min qawli wa min amali wa min jamiihi allazi kuntu ataaru وجدت وجهي إليك اليوم ملتمسا منك تجا وزع ما خاب أوزار وجدت وجهي إليك اليوم مرتجيا كوني لديك كما جو من سار habli bi fadlika yaa wahaabu yaa maliki kawni laday kakamal biru sawaaru bi jaay malay suma sadaatu xaarabu شمس تخاربها في سوء أخمار أو أنه إن لهم فيما يرى بشر بحر لواليه بار وأنوار للبدر نور عظيم يسرع به لكن إذا لم يكن لشمسي سهر وهب لي الدار بالمختار ثم بهم الله خال تمالي در جرار ما جوك نيوكلا تيجي سمر سانغ مان ممر lama sappi woon mu xëy ma sëmbaat ma saw xorom sëñ Saliou Touré laa wax de ma jóg ji samam sang man Momar dama sappi woon mu xëy ma sëmbaat ma saw xorom dama galamoon reeroon di way nangi fuñ xamul mu woowaat ma ak baatin ma jóg saddu koy ngërëm tamam soxlawul kuy wax mbiram yàlla lay jëfal kilee di way ma xam jëfam ràññi naay mbiram sëriñ Saliou Touré sambaat naa te yeneen booru man momar di roy njàmbe ak kay rek sadix way ci am njëram sambaat naa ci gii jug bamba roy samba jaaraman tafas yéena way fii deng doon daali bépp këram ku jug njëkk njël war aw fasam rëpptal ba jot ndam ak baati nag barke ngërëm ndaw du sen pëndëm ku fi wootaay jeex ak wilaaya ki bugu dee ba suuf si seen di muy raam si fi ëttëm njagam yeewu naa la xel lu jóg yee ñi fi nelaw yandoor ngalam te xel mu nax yi a bokk yam fabaat naa sama nos jox la yow sang bi fabal wa mat maa te jébbal Bamba mu may ma ku may nga ñe xas man du tee jàpp naa ci yow faral say ayib seex sal ture dolli waat ma ngëm dama liij saa jëf yee ma lool waaye fat nga nëbbal ma samay bon bon bu teg ca fonk ma ku jóg ŋàpp nag de xam dem di ñaani ndox du feesal te buy kooka dab ko ba max li may bëgg wax mooy teggi laak weesu gëlëm ku koy def itam xam naa du dem fenn am fandam danga jóg ci njël war tuur bi ay yoon yoon ba ku ne bayaan loor dapti la loolu nañ ko xam danga jël sa ndaw jébbal ko Seex Bamba sey ci moom kañu raw ngi bamba la fal yow sa taal du giim ku teewul ndamul seex bamba wër fépp mun te nga raw faw ci santam bu wër ëpp leenu ndam jógal wër si lamb tey jii ma kañ la sa mbir set na saayir set ci baatin amoo tilim yàlla yay bàkkoo ku fay set sa cummi kaay du wër tuuti dal koy gis da ngay nëbb maa ko xam wolof nee na soxmaat moom du wek ndox ma muy dëkkal ku siinum ñu ndox bay weesu dex andu te xelam momar momar tee nga jóg fa baat sa ndënd mi door ci sab galeen ba mu riir bakkaat sa mbër mi bu wóor bileb galeen wute naak mboolem galan yi fi woon ndax mbër bu salloo di daan bàkkam wa daa war a moo tax ma jóg yee salaat saa ndënd mi di ko foor wayaat mbërum Bàmba mi tanaa ko jaajëfe góor mbar mi du mbar yi ne fii Cheikh Saliou Touré diwaan faley summi ko galan bi ak ndënd mi it moo di wax ko lu teewlooti leen ma biral saa kàddu gi ba mu wóor mu ñeel ki Seex Bàmba Fal duy koy ngënee la leer cembar ya Bàmba defal la bokk mat li mu doon ba mel mbër du ko yab dëggoom gi ñëpp la leer Cheikh Saliou Mbacké bu doon Ahmada moom sadiqu lay xala doon mbaa muy Omar mbaa Aliyu mbaa ko yor leer xam-xam ba baabul uloom yoroon la doon bu wér ku ñu ba nakku ko xam kum yar nga mot sori réer tabam gala yor ku maandu way du ko miim naa saxoo di ko woy ndax may géwél mu jigéer xam-xam ba baabul uloom yoroon la doon bu ku ñëw ba nattu ko xam kum yar nga mat sori réer majinaat mbëndum canta ngërëm gaay daa fi jiin ba bàkkaat ci saawaa ku man kaa ñu bokku jiin fabaat naa samay tàmbur xëccaat der ya peeg ndëndum cant fum riire nitug yàlla lan di jiin Cheikh Saliou Touré kaneexoon ma man yaaram ni bu seyri mbaate kaab dina farlu roy ñooñi ci mbër mi fi yàgga daan kaneexoon ma am xam-xam ni maam jàmbe ak xadiix dina farlu roy ñooñi bu wer yi dégg leen géwél yooya daaway daam galeen yañ ko bàkke woon ca ab bu fas yéene woyal mbër mi yàgga daan bu Seex Bamba teewaatoon ci saayir magam ñi teewu loxom booba yaa koy ñëpp xawa yaa ko jàggi daan bu Seex Bamba teewaatoon ci saayir mbindeef yi teew dalay fab ca kaw yéegal tanaa ñépp nañ la jiin kanee xoon ma man séeréer ba wax la ko faaxa yow naa la sib naanu nigel waare nekk siin roy naa fi njàmbe maroy sëñ Babacar Jaxate ci way sëriñ bi nu am na ngeen ma déglooti fab naa sama laxasaay jébbal ko jublu ko man di wan ginnaaw ku ko foñ ma jóg di wax liiti daw péete day xañe ab cër loolu wax la ju ku dégg lii na nga taataan maa ngi yeeteeti sëriñ bi may nanu ak dex nan ci root sangu ci duy sun bagaan yépp moo gën jóg di waxeeti dex gaa nga cees fet ba rembat xel yi jéggi ko way ñeneen di root si ba feesal gaayu luy liiti doon naa sa kaab doon sa xeesaan doon bu siiri ci yow doon sa musaa kaak sa diix jaajëf ci jëf jeeti lambi sariya bu sa joon woolu naa la fa yow sab samp deesu ko fel doo dox di xeebaate te ñooñ xaqiiqa ña buñ teewoon ci pii nga teewu xam na ni yow mbër nga doonoo kuñ di laajteeti lislaam nga nekkal te lislaam moo di bamba bu wér ku diine réer boo ko dee wër bamba ngay seeti li tax ma wut si la saabon gii di landi ba fes ma bëgg baax maa ngi nii kon fóot ma duy maati saaboon gu rëy gii te teewul yaa ma teg fi sa wet te doo ma xas doo ma jànneet doo ma jéppeeti asxaabu kaf ña seen xaj baa nga nekk fa ñoom te man du mab xaj te yaa sut ñooña tong maati bun bàyyi koo fii ba dem foofe janoog rabbana nga gën ñu faa sàmm bañ raw mooy tuluy joote bu kab waye Mustafa njol màkk siidana mosaa ka way bamba man moor xaacu way laati ñu àndandoo tabbi max waa bamba jiite nu ñun ñii gaa yi cees ñëpp déngoo tey xasidaati nu am salaam waaxu jëm daarul salaamu di way borom salaam woon ñu boppam ñuy ziyaaraati nee naa la jaajëf ni sukuran wax la mujj ca kaw gracias merci thank you cant war naati Euh, sëñ Mor. jërëjëf. Euh, yàlla la sëñ Tuubaa fay. damay bëgg nag kuy seetaan nang ma ñaalalal sëñ Saliou Touré. xam nga kañ laa gëj a jox sëñ Saliou Touré loxo. 1991. këram cee sax xaw ma ko. waaye day dund sëñ Tuubaa. ma xam junni nit yoo xam sëñ Saliou Touré leen defar tey. ñuy defaree. mu am cër bu mag bu mu am ci sëñ Saliou nag xam nga lu taxoon ma xam ma xàmmee sëñ Saliou Touré ci sëñ Saliou ceeb yam fa daan andi xam naa ne moom sëñ Saliou Touré waxtu wi yow sëñ Saliou moom teraanga lay andi moom looloo taxoon ma xàmmee moom li ma ñi ma njëkk a xàmmee la bokk te teraanga yi mu daan indi sëñ Saliou ci laa ko xàmmee man waaw loolu la sëñ Mbaye Jaxate waxoon moo ci nekk eh, sëñ Abdou Lahad Seck nee jox na la grand bu jas neer bu ñu ñëw ba noppi nee na jox na la ko addee sëñ Saliou Touré Euh, damaa bëgg murid yëpp teral la nag ndax yow bëgg naa sax ñëw ak yow foofu ndax sëñ moor koo wax mu ne sëñ Mor sama sàmba sama jànkat la te man gëj maa gis nga génne sonw xasaayit su ma juumalee raa yaba ci laa génne sa son lan moo waral loolu kaset dafa doxatul walla yaa bëggatula génne son lu waral loolu tekk gi euh, xam nga daa mel ni kaset yi mhm. na mu daa yëngoo bu njëkk. Mhm. yëngootu ni. Mhm. coono yi ci daan def nga xam ni producteur moo la daan woo. Mhm. yëkkati ab lim jox la ni la nga defaral ma. nga defaral ko mu fay la yëkkati ca kaset ya may la. loolu ci dox xam naa lañ ca daan gañe sax du azaka yi ñun duñ amuñu ca azakaam. waaye noonu la ko yàlla dogale. mu nekk ay. coono yu méttee méttee métti. Mhm. xam ni daanaka boo duggee studio. defoo cassette. Mhm. da nga def benn son. Mhm. balaa génn ñu daal di koy tasaare ci réseaux sociaux yi. léegi day mel ni dootu ko jar génne cassette yi day mel ni. ci man bokk loolu rek la. waaye ni clip xewee nii sañ Saliou Touré bi war nga ko mën a jàng ak yeneen ak yeneen ak yeneen taxawaay bi moo des wala sañ Mor moo produirul. waaw xam naa loolu la waaye lépp mat na. lépp mat na macha allah. kase di nga jàng ban moo la ci gën a marqué. Euh, laysal birru bi. waaw lu tax. waaw li tax mooy biñ ko njëkkee def. Hmm. ñoo ngi ñaanal sunu jigéen boo xam ni. na yàlla dolli ay leeram. ñu koy wax soxna Marème Touré. Hmm. mook tubaabu joor ñoo bokk ndey ak baay. Hmm. dama jàppatul at mi mu wàcc liggéey waaye xam naa ni ay 97. nga xam ni kaset bi ma njëkk a def ci laysal birru mu nekk yooyu sëñ jaañ bi dëkkoon Pikine. jaañ bi dëkkoon pikin xadim jaañ defe naa. Touba jaañ. mooma moom Marème Touré moom moo yëkkati woon alalam. jox ma ni ma demal defar comme yooyu cassette yi mooy yooyu ñu daan defar. foto yi nii rek nga xam yaa ko daan defaral sa bopp. Mm-hmm. di ko yëkkati di boo demee ci tànt jaay ko fa téeméer wala ñaar téeméer bi loolu weesoo Talla Diagne moo ko produiraat bis bi ma njëkkee indi euh, euh, maquette bi di ko won mu teg ko di ko déglu ci palaasam ci laa gis nit ñi ñëw di ko laaj ndax cassette bi mën nañu koo jaay te boobu produire ko produire guñ ko mooy cassette bi ma gën a marqué waaw waaw mhm. moom ma gën a marqué. moom lay selbero parce que def na ay jeexit ci yow sax. yu bari waaw. Mhm. yu baree baree bari. Mhm. dafa mel ni euh, loo di doo tudd xasida gi te sama sa xel demul ci Mor Masamba. waaw dëgg la. loolu mooy li am waaw foo ko tudd. Mhm. fi nekk nangu nga waale raayé bi sax boole waale ko ci biir. léegi suñu seex seen moom. te it booba. Euh, Baye Omar Diouf laa dëgg yal na ko yàlla dolli leer baatu waylul lahum waylul lahum boobu mu ko daan jàng may lijjanti fu xasida gi fu mu ne am na benn mbokk taalibe bu ñu daan wax Pape Kandji waaw daan ànd ak ñoom sëñ Mouride Cissé moo ne ma xasida gi dafa raar waaye am naa ko ci benn doll mhm. su ma demee dinaa ko cuqati ci biir doll ba indil mhm. la ko maa ngi fàttaliku keroog bi mu koy indi téléphone fixe la woote sunu koñ. Hmm. ni ma nañ tase ci station booba station bi nekkagu fi waaye ci miiru camp bi. Hmm. salle de tir. Hmm. fa lañ tase mu jóge seen dëkk jox ma ko. xasida yi ma jàng ko ba wattu ko. Euh, ñu doon ma wax ni ma day xasida gu gu tàng. ak yeneen. nga xam ni kii ma doon woy léegi ci ndigalam ci làmmiñam laa déggee li tax ma ñime koo jàng ba def ko kaset mu ne ma sëriñ bi bindul xasida koo xamante ni day lor kenn ni ma ndawal baax na loolu ma ne ko waaye mu bu ëppee docteur am ci yoon loolu am na lu may junj moo tax ma jàng xasida yi maa nga jàng xasida yi tey ni mu neexe nii déglu naa ko ci bâche déglu naa ko ci kaset déglu naa ko ci fu ne ci son tey est-ce que sëñ Mor jaaduwul tey nga tëggaat ko defaat ko mën a jàng ñu def ko ci kale est que taxaw nga pour loolu. waaw mën na bu baax baax. jàngaat ko ci son yi ni mu dëppoo am na bu ma jàng. mu mhm. ngi ci clé moo ko euh, jalibatul ci boole. moom nga ci boole. waaw ñoom laa ci boole. kon nag damaa bëgg euh, sëñ Bay di sëñ Ibrahima Ndiaye sëñ euh, colonel Ibrahima Diagne. Mhm. produireel ma sëñ Mor Massamba sëñ Saliou Touré bi. Mhm. ak Laysal Biro. murid yëpp di ci bëgg sëñ Touba. mu tasaaroon ci àddina loolu maa ngi koy ñaan ci daraje seexul Khadim yàlla na ko sëñ Tuubaa def amiin bi yaa Rasulullah euh, sëñ fal yi loo jàng la lu la dikkal la wala nu deme demee parce que damaa dégg nga ne dex ak am na am na foo tuddee sàmba jaara sànq ci woy wi ci woyu sëñ Saliou Touré bi hmm. xaw ma sëñ moo Samba Diarra ak moo xaw Samba jaaram waaw fas yéene woy fii dégg nga doon taalibeeb këram doon taalibeeb këram waaw sabaat naa yeneen baxru roy jàmba jaaram man dafa mhm. si woy fii dégg doon doon taalibeeb këram noonu la demee waaw waaw booba xam nga li ma ci jublu mooy mhm. woy yi ma woyoon sëriñ bi ci ëpp yi mhm. jiitu baxru rajas la waaye boo déggee yeneen yi ma mujj yi ma ko mujjawaat yépp euh, baxru la yoo xam ni tawil la ak bashit Euh, à part ci ci yi ma ko woy daanaka ñeenti wala ñetti xasida yoo xamante ni lépp baxaru rajas li ci des yëpp baxaru basit la ak tawit moo tax ma ni mbaat naa roy Samba Diarra Mbaye dafa si yéene was way fii deng doon taali bépp këram loolu moo waral loolu li ma bëgg a wax mooy danga leen doon roy ci wolofal wala wolofal lu la diggal la wala loo jàng la waaw xam naa nag ndimbalul sunu borom la ndax man xasida gi ma njëkk a woy 1986 laa ko woy xasida gi nga njëkk a way njëkk a way muy Serigne Mbacke Madina. moom laa njëkk a way 1986. booba boo dégloo euh, baxar yi sax. bismillaahi ma jóg sant buur bi rabbaa moom mi tax ba ma am xel di sulli xarbaa. Moustapha Thioune woyoon na ngay ndefaat ma moor ma sàmba di way sëñ Mbacke Madina. may saxal xalimay daw ci daaru xuddoos kuy murit na nga sar xolle xam ni maa xos. bàyyi Cheikh Bombali siggil na lislaam mooy ki tax ba nu am lii di jàmm ak salaam. Mhm. sëriñ Mbacke jërëjëf ub nga lambi soo daan may saxoo di la way ñëpp xam ni yaa daan. Oh. Baye Moussa Werekaan waa di mbambulan géej Mor Masamba di waane na ngeen ko xam yéen. Mhm. daan ni lii di gëstu ngay jéem sëriñ Mbacke Madina mbiram damaa yéem. Oh. loolu 1986 laa ko woy. ma tegaat ci woy wu ma woy euh, sëñ Ablaye Yaqin. Mhm. Oh. salaamaaleykum yaa Muhammaduna bismil ilaahi maa ngi door di tàmbalee ci Mahdi yu. fa kullu man arabtani li yi doy na ni abdul yaqin siidi yaqin gi naan yaa di mahdi oh. cheikh abdoulahi yaqin mubaraka ne leen yaqin cheikh bamba ak cheikh rafal noonu nañ ni yaa di mahdi oh. soo gisee di nga xam ni kii bëgg naa woy bi oh. ngi peese yi du ñu tolloo du ñu ginnaaw bi nag ci laa sama jàmbaar ji quatre-vingt-neuf Saliou Touré jazaaka yaa yow sang bi mm-hmm. ñoo ngi lay siyaare Touré ndax yaay ki tax ba noo xam kuy mam borom man mii saxal xali may daw ngir bërëm sangu bi Cheikh Saliou Touré kañ moom maam borom Touba. bur yàlla yow la fi teg ngay jiite yow sang bi gëm naa la màkku ma xam ngir maam borom Touba. ma daal ciy tegaat bismillah maa ngi door ci Bamba. di woy mbërëm fi Thiès man Mor ma kooku aay di Cheikh Saliou Touré mu baax mi toogal fi Cheikh Bamba ki am lu baax la. ndimbal liñ ci am na dëgg-dëgg. moom moo ñu ko wax ca Mbakol. du nu ànd ak moom. Euh, yàgg na ñu fay ubbi jumaa bi nu demee am na doomu ndijaayam ju fa nekkoon sëñ baa ngi toog nii mu toog ci suuf sëñ bi ni ko ba nu nee ca daara ja woy sëñ Mbay Jaxate ya nga mokkaloon ndax yaa ngi koy mokkal ba léegi mm-hmm. eh, kooka ni ko waa mu ne ko ma déglu góor di toog di tari di tari tari ba yàgg mm-hmm. mu ne ko man dey sàmm Mbay Jaxate ngi nii taxaw nga gën cee nag. waaw. ma loolu noonu la demee. sama digganteeg moom. ba su ma musaana toll diggante su ma bëggee. dara ci moom damay ñëw rek toog ci mm-hmm. wetam. Mm-hmm. loolu day ah, la ma ne ko bis ma tabaski jub si ma ñëw ni ko. loo may xoolal nii ma ne ko daa am wayu sëñ musaa Ka woyoon sëñ Touba ma bëggoon koo suppi rek. Mm. jëmale ko sa jëmm ji mu mu demee bu sëñ bi dafa waxoon sëñ Moussa Ka leen ko woon Mbàkke su la neexoon wutal ma bayre mm-hmm. ma siiwa siiw ba mel ni ma mar mm-hmm. kayre mm-hmm. waaye bu la neexoon nga taxaw layal ma wookaale laa layal ku rey sàndarma ma ne ko nag ma daal di ñëw ne ko Touré su la neexoon nga wutal ma am xar ma jàpp ci wammat naa ko barbar mbaate bu la neexoon nga wutal ma cent mille ma jënd ci xar ba desel ci dix mille <laughs> waaw waaw tubaarkàlla loolu de xar ma day daal di gaaw sotti moom soxna si ah soxna si damaa gis nga def ci taalib boo xam dinaa gis gaa yi di ko utiliser xeetu ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoom sa ñoom yi euh, xam naa madame madame madame madame madame Diop a ngi toog tubaarkàlla sama koo euh, soppi nag ñu ngi koy ziyaare waaw ko soppi xas ko ko xas yu ñaaw ëpp naa def waaw waaw waaw mais mais baxaru ba nga ko woye woon ak contexte ba sax dafa baax parce que euh, euh, parce que loolu jamono la woon. Ah. mu tolloon ci. Ah. wax ko te lu am solo la. parce que tey euh, sawaay mi gis naa bëggee mu bëggal Adama Thioune moom lay jël waaw soxna Adama <laughs> maa ngi koy jaar baax Thioune tubaarkàlla. waaye dafa am solo ci ci soññe bi. waaw kay jërëjëf sëñ Amidou laaj nga ma laaj bu am solo moom nag. Mm-hmm. yàlla moo dogal mu nekk sama xarit. Mm-hmm. xam nga ànd boo gis day am. Mm-hmm. xaritoo da ci am. day am ñu bari ñoo xam ne dañ koy am na benn sama benn jigéen tey mi ngi Espagne nday soxna sekk maa ngi koy nuyu. Euh, tuddee naa ko doom. di jarbaatu Laay Bamba Seck doomu Laay Bamba moo koy denc. Seex mu ni ma moom rek nga mën a àndal. moom naa nag tolluwaayam la. ñu ngi koy sant bu baax. ni ko ñaanal. gërëm nag day day gaaw. gërëm day gaaw. nit ki nag mën na laa defal lu baax nga sant ko rek. Hmm. boo xarab ñëwee doo ko mën a xarab waaye nga noppi. waaye gërëm nag. Hmm. day yeex lool. Hmm. day teel ci nit. mu nekk sama xarit. boo xamante ni. day mel ni bu ma nekkee joor càmmooñ lay doon. ndax nëbbal na sa nëbbal na ma sama sikk yépp. mu ñal na ma lool. suturaal suturaal na am solo nga wax billaahi la si laa ilaaha mhm. ñi ma xam wala ñu dégg sama tur rek xam na nit laa ko ku metti ku ma nekkal weer rek mën ngaa tenir lu bari nit ku metti laa koo xam ni ñun njóobeen yi kenn ku ci wër daa am ah. njóobeen laa ilaaha ñun ñun ñun yàlla noonu na tool ak mën a bañ koo xam ne mere ko daal di changé wooy eh, ah mu sa tooy léegi man man déedéet man yu njëkk yàlla bëgg man yu njëkk man yu njëkk yàlla bëgg xaaral mu fi aw kayit wax sa bon gi ay bayit loolu laay bañ a dégg ci mbaaxam gi laa bëgg bayit yi li nga baaxoon ci li nga waxoon ci gi laa bëgg ñu boobu laay bañ a dégg bi nga baaxoon ba ne ko dajj nga sa armoire xaw ma tey mës nga maa kii xëy naa suba bis loolu xaaral ma wut fi aw kayit wax ci sa jikko ay bayit mhm. def naa la ngay sama xarit ku mel ni yow ma baax ci man maa bon jikko te tàng lool nga am sa dal te sedd lool ma sikki te doo ko xool roy nga jikkoy jigéen ñi gën am am taxul nga wut si ma sikk sa taxul nga wut si ma lenn taxul nga wut si ma loolu yàlla ak cofeel ci man kenn du ma yàpp di jaar ci yow neexul nga ñëw bu weex nga daw ba bëccëg naaja ki taw yaa ngi may jëfal kenn li nga man yoroo jikkoy jigéeni tey fu tooy ñi dal buy wow ñu woy defoo safaan wutal ko lay mm-hmm. noo mel ca daaw mel nga ni ren doo soppeeku ndeysaan tubaarkàlla jërëjëf euh, loolu neex na lool am na soxna Anta Samb mi ngi naa ma loolu neex na euh, ñi ngi ziare soxna Bali Mbacke bintu Cheikh Mouhamadul taxaa Eh, soxna Bali parcelle maa ngi koy nuyu baax di ko ziare eh, soxna maam Awa Silem maa ngi lay nuyu eh, di la ziare baax a baax soxna Sall sunu soppi la ca Touba nee na tey da nga koo daaneel ñu ngi koy ziare Pierre Moussa Thiaw bég na lool nee na mi ngi lay ñaanal sëñ Ablaye balaa ngaa tàggatoo il faut nga waxal ma tuuti ci sëñ Gaawaan sinon dina am problème bu sérieux sëñ maam Mor ma bàyyi la nga sant dama bëggoon xam nga boo gisee may joxe numéro ñu bari dañuy jàpp sax dama bëgg laajal yéen sëñ Touba defal na leen teraanga gis nga soxna si ñun ñëpp dañ koy sant gis nga xam nga lu tax képp kuy ànd ak kuy liggéey sëñ bi li ëpp ci moom mooy nga nëbbal ko sikkam gor piir noonu lay def nëbbal sa ay bi borom kër ba noppi suturaal ko te yéen ànd ak yéen ak ñu mel ni yéen ak ñu mel ni sëñ Bichri dafa difficile parce que ñëpp leen di wuyut si te tañu leen rejeté kenn sañu leen ko parce que sëñ Tuubaa leen di indi ci seen jëmm kon li mën mooy li ngeen di def mooy accueil sëñ Tuubaa gi leen di teral waaye dafa di boo paree émission nit ñi dañ lay woo sëñ bi man di ki nga dalaloon sëñ Mor Masamba laa soxla numéro am loolu day metti parce que ñu bari dañuy kaas ah téléphone yi nangam nangam xeetu sëñ Mamba gi waaye damay bëgg ki nga ki ma invité mu joxeel boppam numéro nit ñi mën di jokkoo moom ndax am na koo xam ne mën nay bëggee Mor Masamba 30 ans te su koo gis mu bugg koo jot mus ta jóge ci moom su boobaa média murit bii li muy jëriñ mooy approcher kooku soppeem boobu parce que am na loo xam ne danga koy déglu ku nekk ak sa jàngkat ku nekk ak sa waxtaankat am na koo xam du déglu ku dul sëñ Mor Massamba man am naa mag boo xam sëñ Abdoulaye Diop xam naa bu wér ni sëñ Mor Massamba bi ni mu ko bëggee amu ci saako xam naa ko bu wér a wér te bam lay bëgg booba cassette yii moo am cassette yii nii ma xam ko bu baax rajo oto yi lañ doon dugal ci kii booba la la ko la ko amoon di la déglu di la béggee sama rakk bi topp ci man murit noonu ndaysaan doon na fi sax jéem a jàng day recep air waaye comme baat ba neexul mu mujj ko bàyyi ba ma ko déggee ma ne ko mor bu la déggee air bi la lay bàyyee moom moom air bi la lay bàyyee bàyyi jàng mi ma bëggoon nga joxe numéro boo xam xëy na danañ ci a jaare ngir mën a jot sëñ Mor Massamba suñ noppee nag suñ bu sëñ Ablaay noppee nga mën a tàggatoo sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi lay ñu ngi lay teewlu euh, sëñ Mandam sëñ Mandaw maa ngi bég bu baax ci teewaayam ci plateau wax dëgg yàlla euh, gën naa koo jàppaan nag ndax taxawu gi la taxaw waaw ah, ndax xam nga ñun njóob yi dañuy solidarité quoi yenn saa yi njaay ni ñoom dañuy beru fa leen di solidarité ma bàyyi la nga joxe numéro bu ñu la mën a jaar. jërëjëf sëñ Amidou. Mhm. amoon day sama numéro 77 la. 77. 642. 642. 42. 42 encore. 86. 86. 77 642. 42 86. 42 86. kon mooy numéro sëñ Mor Masamba Diop 642 42 86 tubaarkàlla bu ñu ko woogoon nag nañ bàyyi ba mu noppi xam naa sëñ sëñ Malick tey tey lay téléphone ba sonn mhm. euh, madame Diop bàyyi noonu rek bul bul bul kii euh, soxna maam Diarra maa ngi koy nuyu moom sëñ moom sëñ Blaat soxna moom mi ñu ngi koy ziare soxna maam Ami di ziare bàyyilaat bu baax di la ñaanal tawféex kon sëñ Ablaye oh. damaa xamul ndax dangay ngay njëkk a ziare yi ndoor maa mosal ci sëñ gaawaan ji waay boo ma ci mosul di nga ma indil problème boo xam ne bala maa génn fii dina am problème. waaw xanaa ne bàyyi nga ziar damay nuyu mbokk yi nga xam ne rek ñu ngi topp. bismillah boobu ba léegi ñuy envoyé seen message seen message bu mbégte. Mhm. di wane seen ànd ak ñun ci jataay bi. ma benn xulle ca Salou Espagne mu ngi ànd ak ñun. Mhm. soxna Khoudia mbay ca Bargny soxna su baax. Mhm. keroog damaa toog rek mu ànd ak borom këram ak njabootam ñëpp ziar ba kër ga. indi fa teraanga yu bari. yàlla na ko yàlla sàmm te mm-hmm. yàggal taxawaayam ku bëgg émission bi la di ko bàyyi xel léeg-léeg sax bu émission bi son amee problème dina ma ko wax mm-hmm. nga xam day saytu émission bi di xool lépp lu koy jagal mm-hmm. ñu ngi koy ziar nu ngi nuyu ba tey Serigne Ndong mu ngi ànd ak ñun ci jataay bi sama doom sëñ Ibrahima Jong zikrulaay xam naa nañ ko fi daral bis bu ñuy defal maam Cheikh Fall mu zikkar incha allah mu ngi topp jataay bi sëñ Cheikh Ndiaye noonu sëñ Mouhamed Thiam ca Ziguinchor mu ngi jotal nuyoom nañ ma nuyul ma sëñ Hamidou ñu ngi topp jataay bu baax sëñ Mouhamed Thiam suñu soppe boobu ca Ziguinchor soxna Bàjjan Touré Thiès waaw moom it ñu ngi koy ziar taalibi sëñ Saliou ture mu ngi ànd ak ñun suñu yaay Adja Ndeye Faye bëgg ñu lool bëgg émission bi mu ngi koy topp mhm. soxna Mayka euh, ca Touba mu sëñ Jili Fàllu soxna Mayka mu sëñ Cheikh Lagan soxna Mbaye message na ma léegi waaw mu ngi topp jotaay bi na nga ko ziaral baax a baax a baax a baax a baax naka noonu soxna Mbaye ka cité avion wakaam mu ngi ànd ak ñun sëñ Bàcc Gueye ca Castor mu ngi ànd ak ñun sëñ a Fall Jandeer suñu soppe boobu Touba Forage mu ngi topp jotaay bi sëñ Cheikh Niass mu ngi yóbbante message nee na bëgg na lool mhm. suñu yaay ami Kolle Ñang ca Bourguiba moom it noonu soxna Maguette Ndiaye mu sëñ Saliou ngi bég ci jotaay bi soxna Moomi Sàll sama jarbaat ca Pikine maa ngi koy ziar di ziar bu baax soxna Adama Ñang nekk fële ca Bordeaux mook borom këram sëriñ Moor euh, maa ngi leen di ziar sëriñ Moor Dooy mu ngi topp jataay bi Pape Tambie du naka noonu mooy mu ngi ànd ak ñun ba tey ci jataay bi soxna Kun Fay sama jigéenu bopp sama xarit maa ngi koy ziar di ziar sunu yaay soxna Fat Seen bu baax a baax a baax soxna Fat Jóob Seen ak soxna Ndey Faatu Fay ñoom ñépp a ànd ak ñun ci jataay Ibrahima aan bëgg Bamba naka noonu mu ngi topp jataay bi sëñ Badara Ñang ku baax taalibi sëriñ Touba boobu ca euh, fële ca ñàkku rab mooy mu ngi ànd ak ñun ak sëñ kamara di suñuy soppe sëñ Modou Dioum nee na mu ngi lay ziar mu nga ca Thiès mooy mu ngi topp jataay bi Mandiaye ca Pàkk Lambaay Malick Dia sunu grand Mandiaye Diouf ca Géejawaay mu ngi ànd ak ñun euh, sëñ Saliou ja ca Njar sëñ Seex Seen Bayax mu ngi yóbbante nuyoo Mm-hmm. di beral yoo sañ Medoune Sey borom tawféex. Mm-hmm. sama soppe boobu ku baax la kuy def lu baax ci réew mi yàlla na ko yàlla sàmm ak président Lat Diop ñoom ñëpp a ngi topp jataay bi. Mm-hmm. sëñ Xaamidun xam naa sant ñëpp rek parce que mënuñu lim ñëpp. tubaarkaale ñëpp ah, rek te mbokk yi ñuy bëggee daa bari. moom kay niñ lay sonale ah, parce que xam nga xam nga sëñ Ablaye dafa metti nga bëgg maanaam 40 personnes yónnee les messages 40 personnes rek si ponso nga bëgg a ziar ñëpp daanaka rek jël nga ci émission bi 20 minutes. te am na ñoo xam ne mënoo leen ñu bari dañuy jàpp ne sax ñàkk ziar gi wala nangam nangam fekk day bu boobaa rek day dérouté émission bi man dama ko yërëm ñu bari sax yenn saa yi ñu woo ma sëñ Ablaye ma leen sëñ Ablaye moo am yërmande yi di am ñu muy tudd rek waaye des na tuuti su su sëñ Ablaye ñëwee téléphone am laay nangu teg ko fii kenn koo ko message sax du la tudd parce que dañ ko dafa ñëw pour ñu jariñoo xam-xamam euh, ñu ngi ciy tuub nag baax soxna Ndeye Mbacke madame Seck maa ngi lay ziar baax a baax ak euh, soxna Adama Mbacke euh, bokk ci groupe kenn sëñ bi nee na sëñ Mor na nga wax dara sëñ Saliou euh, sëñ laay la 7 juillet mooy nekk màggaluk sëñ Moussa Ka sëñ Moussa Ka werekaan tubaarkàlla danañ ci waxtaan incha allah sëñ Ousmane ja ci YouTube bi ndeysaan moom it mi ngi naan mosu leen def bu mel ni waaye maa ngi lay béggee bu baax sëñ Ousmane di am ci yow mbégte kon ma bàyyi la nga ñëwul ñu sëñ gaan balaa sëñ Mor Massamba tàggatoo tey su ma la doon laaj lu la gën a marqué ci maam yi ma gën a marqué mooy yoon wi magu ci yoon wi boroom gaawaan magu ci waaw waaye yu rëy yëpp sëriñ bi jagleel ko ko te magu ci yu réy la ko jagleel te magul ci yoon wi kon day wane pasté fu borom gaawaan ba ca njëkk mooy moo njëkk a jébbalu ci mbàkke mhm. na ko sëñ Moussa Ka waxe mhm. yaa njëkk a fab sa mbir ci seenu askan jébbal sëriñ Touba nuroo la kenn loolu lu doy waar la beneen ba ca topp mooy sëriñ bi dëkk bi mu njëkk am ci àdduna ñu koy firi ci lu mu moom muy moomeelam di daaru salaam moom la ko may waaw loolu sëñ Touba dëkk bi mu njëkk am muy daaru salaam mu sos ko 1886 ci ndigalu boromam ñaari at la fa sëñ bi sax dem ca Touba. rafaatale maam seex ant dëkk ba ak juróom-ñeent fukki taalibe ak juróom loolu lu ma yéem la sëñ Hamid bi sëriñ bi newee ci tukki bi ndaw fekk ko fa di sëñ móotuloo dagana la mu ko wax boo demee neel maam Cheikh Anta na waaj fekk si ma loolu tam lu yéeme la bi sëriñ bi jógee ci tukki bi bi mu ñëwee ba bato bi costé 10 heures ci suba ba 16 heures mag ñépp ngi fi mm-hmm. waaye maam Cheikh Anta la njëkk a woolu moo ko wuyu dëgg la bi mu duggee moo ko yennil kawaram moo ko wat sëñ bee ko jox saatu mu wat sëñ Tuubaa ci biir kaw hmm. moom la waxal door a génn dajeeg jaam ñëpp wax ak ñoom bi sëriñ bi ñëwee ba wër fi mu wër yépp yàlla dogal mu dem fukki fan ak juróom ca ndar dajee caag rakkam ju tedd ja nga xam ni gërëm na ko biir ak biti borom daaru Muxti yónni maam Cheikh Issa jenn mu wool ko ko ba mu fa jógee ume ji koor Louga kër sañ Cheikh Coro ba mu fa jógee Cissé ñeenti fan bari jàmm Cissé juróomi fan mu dem Sànnoosi toog fa ba korite bërëb yi mu fi demaat makka baabu la kër ndumbe xari la ñaxal la Mbàkke Kajoor la Daaru Salaam la dem 21 janvier 1903 fa lañ ko ganale ngan koo xam ni juróom-ñetti fan yoo xam bis bu jot fukki gëléem ak juróom fukki nag ak juróom fukki xar ak juróom fukki bëy ak juróom ba mu day nit terale ko tan yi ngir màggal ñëw sëñ Tuubaa loolu maam Cheikh Anta xasaayid yi sëñ Tuubaa njëkkoon a taalife foofa ba bu ñëwee moom la ko joxit moo nu ko móolal ci wërsëgam moo ko móol moo aji màkkatam ànd ak mbokkam ya waaye moo fay biyee yëpp borom daaru salaam moo fay biyee yëpp eh première classe la leen fayal moo ko def 40 première billets yoo yoo xam première classe la leen fay bokkut ak ñi leen topp lépp mu financé ko diir bi ñuy dem bay dellu si lu fi waay soxla na jël maay fay di ko sant Serigne Touba waaye itam màggal gi ñuy waajal di la 30 moom ndigalu sëñ Touba la sëñ bee ko fi fekke muy ndigalam te it màggal gii murit yépp a ko war a màggal sëñ Hamidou ak kër goo mën a bokk. retour kër goo mën a bokk rek. Mhm. ndax retouru sëñ Touba tax ñun ñu texe. retouru sëriñ Touba tax tey ñu murit siggi mhm. bu sëñ bi desoon ci géej ci dara duna jar. Mhm. murit sax mooy raaf dafay du amat. kon retour bee waral lépp retour bi lay màggal. kon le 30 kuy murit ak foo nekk war nga koo màggal. ndax moom retour bi ñibbi si sëñ Touba la borom Daaru Salaam jàpp muy bisam. ndax ca la dajewaat ak moom defal ko ngan gu gi. waaye itam borom Daaru Salaam. dégg naa sëñ Tuubaa wax ni dénkaane koo wóolu maye ko la neex jaay ko am njëg daal ni li ma doon dénkaane dénk naa ko cerno dama koo wóolu li ma doon jaay Ibra Fall jënd na ko daa am njëg waaye li ma doon maye may naa ko borom daaru salaam dama koo bëgg borom daaru salaam it sëñ Tuubaa moo ni ko koy songool na ko xool ndax kooy bëreel du yow yaay bëre man maay dugg ci yeeli kooku daan ko kon koy songool na ko xool ndax yow dootoo bëre maay bëre ci sa bi bu ko móolalee móol yooyu sëriñ bi dani ko sunu borom namoon naa wàcce tawat juree ci yow tawat joo xam ne bala daloon képp ku la sopp dina am lu ko naqari dalaa waroon a génne àdduna waaye móol yi nga ma móolal tax na dinañ dolliwaat sa dund nga yàgg fi lool loolu sëñ Tuubaa defal na ko boroom daaru salaam waaye borom daaru salaam ba tey diggam ak sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee fekk sëñ Tuubaa ci tukki bi sëriñ Tuubaa dani ko lal bii yenant bi alayhi salaatu wasalaam moo ci toogoon di wax ak man yonent bi moo ma xamal sëg ñëw sax ma toog fii di la xaar Cheikh Anta mu ne ko Mbàkke mu ne ko yonent bi dénk na ma ñaar sama digg ak moom dénk na ma ñaar sama digg ak yow nee na moom yonent bi naa ko téyel zaayiram man sëñ Tuuba te moom yonent bi mu téyel ma sama baatin waaye yow seex Anta yaa may téyel sama zaayir ma téyel la sa baatin kon baatinu maam Cheikh Anta sëñ Tuuba ko gàtt li firndeel gis nga diggam ak Blaise Diagne bi nga xamee ne Blaise Diagne defal na sëñ Touba liggéey ndax indil na ko ndox indil na ko plume indil na ko encre sëñ Touba ñaanal na ko mm. falu na nekk na premier député noir mm. bi mu waree yàqule war a ñàkk maam Cheikh Anta am lanteel mm. ci loo xam ni appartenance politique rek la nanguwul ci moom mm-hmm. ngir lu mu kóllërante ak Galandou juuf attaqué ko tribunal bi ñu demee mu ni damay tëj maam Cheikh Anta 10 ans séegu Mali mm-hmm. moo waral nattoo di kerkeraan sëñ Moussa Ka bind ko mm-hmm. pour defal taalibe yi waaye sëñ Tuubaa noonu na ko lu ma dal ci metti dina dégg ci mus mhm. ndax dama laa bëgg lu ma dal dina la dal mhm. loolu mooy déplacement maam Cheikh Anta mhm. sëriñ Tuubaa ci boppam junjoon na ko dem kooku waaye bi nga xamee ne Blaise Diagne wax na loolu maam Cheikh Anta dañu fukki at la ni la tëj waaye fukki atama dese ci àdduna sëñ Tuubaa waxoon na ma sama dund waaye moom du ko fekke de daal di yónnee benn nitaalam fi mu ne maam Cheikh Anta nit ñi dañuy topp alal jeeg barke bi fekk wilaaya jeeg baatin bi gën a garaaw mu gën a garaaw fotoom la jël rek bind ci ay aaya tifli ca jox ko kenn ci taalibe yi ni ko taal leen ko te saxaar si ngeen moytu ko beneen jaan ji na xam ne du moroomam mbërum sëñ Tuubaa la moo tax sëñ Moussa Ka ni mbërum sëñ Tuubaa mënee su koo daan ma ngay takkee ndombaam fa pays diwaan Blaise Diagne ci la tëdd guddi gént gaynde di ko fàdd ba mu xëyee la tiit dem ñu seetal ko ni ko da nga tooñ wàllu bu am doole ci nguuru sunu borom gi boo tuubiwul da ngay dee ba muy egg euh, séegu jotut a gisanteeg sëñ bi avant muy àgg fekk na tawat gi dal na ko bi mu ñibbisee la faatu en 1934 mu ngi fii Soumbédioune waaye maam Cheikh Anta da nga ciy jànge tam wóolu sëñ Touba gëm xoolal bi mu demee 1928 ci ma la wax aj Màkka le 7 mars 1928 ànd ak sëñ Ibrahima Dia ànd ak sëñ Tàkko Mbàkke ànd ak sëñ Mawlaaye Bousso ànd ak sëñ Mbàkke Bousso ànd ak sëñ Modou Fall Diop ànd ak seen doom ja Cheikh Mouhamadoul Fadilou dégg nga ànd ak ña mu àndal ñëpp sëñ Mayoro Fall ak ñoom ñëpp ñu am sëñ Ahmadou njaay ma euh, sëñ Ahmadou Ndiaye Diop ñoom ñëpp ñu ànd sañ Mayoro Fall bi ñu demee daa fekk ñuy réfectionné di defaraat pavillon bi tiim yanant bi alayhi salaatu wasalaam ci mu ni lépp lu tiimoon yanant bi ñu ko fi jëlee sëñ Touba la war a tiim dañ ma xaymaal lu may jar ma yóbbu ko Touba loolu la ñu tiimale sëñ Touba li tiimoon yanant bi moo ko jënd moo tax sëñ Moussa Ka ni ko yaa fab pavillon ba fa rasulullahi yut sëñ Touba damul wallahi kon maam Cheikh Anta dañ ci jàng itam wóolu sëñ Touba. dafa ma sawar otoom chauffeur bi di ko dawalal commandant bu ñëw commandant négri euh, colerte colerte romb leen double maam Cheikh dem mu ni chauffeur bi waaw kii ma raw nag mu ni ko ah commandant bi la dalaa gën marque oto de <laughs> oto bi mu war nag moo gën a riche ci àdduna fi mu moo tax mu raw la mu ne ah kon fi ne bu ko kilifaam woowoon sama kilifa woo ma mooy njëkk a àgg ci kilifaam bi ko gouverneur tubaab bi woowoon man sëñ Tuubaa woo mu ne ko waaw moo leen njëkk a àgg ndax otoom daa gër sa oto maam Cheikh Anta ko loolu warul ndax sëñ Tuubaa rek a mat moo mat ci kon nañ wàcc ma jënd ci fukk ñaar ci oto bi mu waroon moom bi ñu mu jënd ci marque boobu douze oto douze daal ma ci jublu mooy bu ma sëñ Tuubaa woowee moom kilifaam woo ko ma njëkk a àgg sama kilifa te man dinaa mën a doxal sama kilifa fukki soxla ak ñaar ndax fukki oto ak ñaar laa yor bu dee benn benn mën na cee war dem doxal sëñ Touba mhm. te benn soxla lay mën a dox ci oto dëgg la kon kooku mooy ku gisoon sëñ tuubaat ci lépp bëgg ko dëgg la sëñ na ko mhm. li ñuy coow ci maam Cheikh Anta lépp mhm. dara ëllëg la ñuy gis mbiram ah. waaw baa xam ngeen loolu dafa am ci bi muy tuut tànk topp gi mu toppoon sëñ tuubaat topp gi ëpp lool xam fu sëñ tuubaat génn ma koy sant bëgg ko lool mu jaral ko lu ne bis am ñu koy woo di ko yedd naan ko ni nga toppe sa mag ji ëpp na sa doomu bàyyi rek la nag mhm. waaw yow sa nday daal liggéey fii nag waroo toppe nii sa doomu baay mhm. mu ni bàyyi leen ma moom jaral na ma mhm. fekk sëñ baa ngi taxaw ci ginnaaw di leen xaar ci ginnaaw tóokóor bi mu ngi yoraloon mu ngi toppoon ci ginnaaw fasu sëñ bi jàpp ci genn bi ñu ko waxee loolu ba mu dellusi ci sëñ Tuubaa sëñ bi ni ko lu ñu doon wax ci man ne ko dañoo wax ni ni ma la toppee ëpp na ndax sama doom nga sëñ Tuubaa ni ko loolu ñu mu ne dama leen a wax ni leen jaaral nga ma sëñ bi ni ko leneen loo tontu woon lu dul lool tey la ñuy tàqali ko maag yow mhm. waaye comme yaa ni jaral naa la dinaa la teral ba ñëpp xam ne jaral naa la li ci des nag ma denc ko ba ëllëg la moo tax li ñuy coow lépp mooy li feeñ fi waaye ëllëg la desay a yaatu eh, xam nga Seexul Xaddim dafa wax ne ko maa ngi maa ngi maa ngi félicité sëñ Amidoun moom sëñ Sidi moom sëñ Amidoun ci livre bi mu def barki démb ci Radisson wax dund sëñ gaawaan andi archive yi ak lettres yi keroog njabootu sëñ gaawaan gi ëpp ñëw nañ ci jataay ba sëñ Tuubaa dana seex xamul lim ma toppe man xaw ma li ma ko bëggee ndax ba muy topp sëñ tubaa amagul xel mu tranquille mu mën a topp nit 18 ans ci la nit di commencé majeur moom ci la yilifub dëkk dëgg la bu doon ci politique dañ naan moom la njëkk a investir bi sëñ ah, tubaa di décentraliser Cheikh la njëkk a investir waa ndax nit di nga ko investir à la de 18 ans te noppi woo ci moom wallaay ndeysaan fukki at ak juróom-ñett nga investir nit sëñ ma ndaw jox ko juróom-ñeent fukki taalibe ak juróom-ñeent ne ko boole ci sa bopp muy téeméer woo soxna Anta Njaay Mbàkke ne ko demal wéttiliku ndax tu tànk la at yi bareegul booba sëñ bi noppi na ci moom moo tax li sëñ Ablaay wax lu garaw la xam-xam ba moo fees ba bëggi sëñ bi muur ko te mas naa sëñ Tuubaa mas naa am ay gan yu ko bett mm-hmm. fekk boobu réew mi jafe lool mm-hmm. gan yi bàyyi koo gànnaar di ay naar mm-hmm. di di dañuy seet dañuy càmbari ji barkeb sëñ Tuubaa bett ko di ñëwee boobu am ndawal jafe na sëñ bi am ci jaaxle lool maam Cheikh Anta moo dugg ci néegu maam Anta Ndiaye Mbàkke génne fa benn fital bu mu dencoon mhm. boo xam dañ koo sóobee as lëf ci wurus mhm. ànd ak ko ñuy wax sëñ coon ka mhm. dem kayel jënd ko weccee ko ci aw yëkk wommat yëkk wi dikk toppatoo ko jox ko sëñ Tuubaa sëriñ bi def ko ay seel ñu lakk ko mu teral ci ay ganam keroog sëñ bi daa dégg ba jël deru deru yëkk wi lal ko ni ko kaay taxaw ci kaw dem ndeysaan maam Cheikh Anta taxaw ci mu ne ko nii nga féetee kaw deru yëkk bi di nga ko féetee koo bokkal jamono. laay mm-hmm. laay sëñ kon xamul li ma bëgge xaw ma li ma xaw ma li ma ko bëgg xamul li ma toppe euh, ñu ngi waajal bis bu am solo sëñ Ablaye euh, muy dimanche la 11 juillet 2021 fii ci Masaalikul Jinaan ma bëgg nag ñu yaatal ko ñëpp ñëw ñu dund sëñ Tuubaa ndax jàpp naa ne liggéeyal ko weesuwul tey réew mi di fekk demuñu ba def vingt 24 heures wala semaine boo xam ni du doon màggal sax dañuy delloo njukkal Cheikhul Khadim. wallaay ndeysaan jërul yoonu murit ak moo defar murit yeeg mu déedéet africain la. Hmm. bu yayoo rendre hommage. sëñ Touba. africain la bu yayoo jaajëfal. loolu nga wax la sëñ Abdou Abdourahmane Mbacke mu sëñ Abdoul Khoudous. Mm-hmm. ci diwaan bi mooy sëñ Touba. Mm-hmm. dani dani dani dani hubbul xadimi ala suudaani muftaradun is xarara suuda min riqil mudillina mooy loolu nga wax cë waaw xad ar xarara suuda min riqin fa qaadahumu lillahi billahi nga nee na euh, farata la farata ci képp ko yor deru nit ku ñuul la wax ci nga bëgg Sëriñ Tuubaa ak di ko dund dëgg la ñu ne ko lu tax mu ni parce que dafa libéré jox indépendance der bu ñuul. ginnaaw bi ñu ko poñee lu mat ay siècle war ci kawam jàpp ni war ta tekki dara. dëgg la te ñun ñëpp nangu nan loo. dëgg la xam ngeen sëñ Tuubaa moo libéré nit ku ñu. dëgg la ah, moo tax ñu xam nga sunu bis sa ah. bis la. Euh, te it noo ko war a fas yéene ànd incha allah euh, léegi rek bi ma ko waxee dana ma man je suis partant. waaw ah, partant 100 pour cent ndax yow lépp loo doon dama seet rek xam ne ñun ñu war a sant sëñ Tuubaa lañ mm. xam nga li tax nu war koo sant mooy kenn ku ci nekk la la sëñ Tuubaa defal. bu doon ndonal kese doo ko am mukk ci am ak koo mën a doon nag sant woo mën a yor donte ci moom nga bokk ndonal loo mën a yor laa la wax bu sëñ tubaa dañoon ci yow ndono loolu dootul feeñ dëgg la li sëñ tubaa dugg ci sa biir moo moo moo coiffé moo defar moo rafetal ndono loolu ba rafet bañ di la xool taar boobu nag war nañ di ko njukkale sëñ tubaa saa su nekk euh, moo tax euh, incha allah fas nañ yéene ànd ko groupe kenn du sëriñ bi woo naa ci nag soppe yeek am di jàmm yeeg wëllëre yëpp incha allah annonce bi dana pare ñu commencé ko yaatal ci télévision yëpp invité naa la sëñ Mor damaa bëgg yow boo ñëwee yow moom juróom-ñaari bayit xam naa dama naan juróom maay maay maay maay njëkk a daanu ci lay sat biru nga may yëkkati rek dem toog ba àddina sépp xam ne kiñ doon wax naan tubaab bi moo ko doon woorloo ka moo ko doon wariloo kii lii la doon wax tubaab bi moom moom lii la ko doon wax moom jàkkaarloo moom di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko bi euh, ma bàyyi la ñan ak ñan ngay sant euh, su ko defee euh, suba ci guddi fas na yéene def plateau sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi fii ci télévision bi incha allah ànd kook euh, sëñ Jaxumpa ak sëñ Ceddo Murit Saadix ak sëñ Cheikh Mbay Zikrullah incha allah suba lay doon euh, fii ci Touba TV 21h incha allah danañ ci ànd ak yéen incha allah dinaa ñëw ànd kook yéen ci euh, télé bi en direct di ci ziare sëñ Xalil Mbàkke ci waajtaayu bis boobu nga xam ne mu ngi koy waajal di ci fàttaliku dunduk sëñ Abdou boroom dër bi xam naa sëñ Mansour moom suba lay doon bisam di waajal tamit gaawu incha allah war nañ am spécial Cheikhul Khadim question yi ñu am nag ñetti question képp la yoo xam duñ ko génn man ak sëñ Jibril Ndaw ñi nga fas yéene recevoir alaaji sëñ Gana Messere Maxtaar waaye spécial Cheikhul Khadim lay doon boo xam ne ñetti question yooyu duñ ko génn ci la ñuy waxtaane Cheikhul Khadim waaye nag ci anam la yoo xam ne du ma ne mosuñ ko posé waaye dana dana neex lool euh, incha allah danañ am nag ay invité yoo xam ne danañ ñëw seetaan si waaye du am participant danañ ñëw rek seetaan si incha allah fas yéene ànd na ñun samedi lay doon bii incha allah fi 26 21h fii en direct ci Touba TV YouTube ak Facebook yëpp na ko mbokki bi yëpp xaar incha allahu Euh, danañ ko àndandoo ak yéen euh, di ci woo soppe yi yëpp ak ñi mboolem ñuy dund sëriñ bi euh, gaaw incha allah waxuma ñëpp nag ñëw mu fees de maanaam <laughs> damay def liste sëñ Mama wala joxe numéro sëñ Mama ku bëgg ñëw rek nga ñëw. <laughs> jërëjëf sëñ Bac. xam naa nga may ma ma sant. Mhm. sama kuréelu soppe yi. waaw ndeysaan soppe si Ablaye Diop wallaay. maa ngi leen di sant ñoom ñëpp kuréel yëpp. Mm-hmm. waaye di ci beral particulièrement nag cant. Mm-hmm. waa université Abdoulaye Diop Bichri. di mm-hmm. sëñ Abdoul Khadr Fall jiite. Euh, beral tam nuyoo waa Jurbel yi. soppee sëñ Abdoulaye Diop Bichri bu Jurbel. ca njiital sëñ Mor Kanji. Euh, dafa am bu ñu ma war a defal foofa ca Jurbel le 22 juillet incha allah. kon maa ngi cay woo soppee yëpp. ñoom ñëpp ñoo daje ci seen cofeel ak bëgg ma mhm. ñu war faa def ngont loo xam dama leen ko fay defal insha allah insha allah maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf di nuyu sëñ Mor Kanji bis euh, bisri wala akasa rek yëpp benn la di ko nuyu di ko ziyaar bu baax di mm-hmm. nuyu waa kuréel ga yëpp ca waa Jurbel euh, la sëñ Ibu Wañ ñu ngi koy nuyu baax euh, moom soxna Marème gay sëñ Ibu maa ngi lay nuyu ak sëñ Modou Gueye Tiwaawoon Euh, ñu ngi koy ziar baax baax sëñ Modou Thiawane ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal moom tamit ci euh, soxna na koy ña nga ma ko sëñ Mor ma bàyyi la nga gërëm ñi nga doon sant su ko defee ñu ngi delluwaat di sant rek euh, kuréelu Mawahibou Nafi fil Matai Safi ci njiitalu Serigne Fallou Ndiaye sant it Serigne Ndiaga Diouf mi nga xamante ni mooy mu jiite région de Thiès ñu ngi it eh, di sant sunu ndijaay joo xamante ni sunu wëllëre la muy sëriñ Bada Ndaw ñu ngi it di sant eh, maam Cheikh Baabu mm-hmm. mi ànd ak eh, soldaaru Serigne Touba Mouhamad Samb mm-hmm. lii ma sol moom ma ko jox maam Cheikh Baabu ñu ngi Baabu ku baax ndeysaan ñu ngi mm-hmm. koy sant di ko ñaanal sunu boroom gën koo dëgëral Mm-hmm. ñu ngi sant it uh, kuréelu Serigne Saliou Touré waa waa kër Serigne Saliou Touré yëpp ñu ngi leen di sant di sant sunu nijaay yooyu Serigne ab Lahad Seck moom ñu ngi koy ñaanal ñu ngi ñaanal it sunu waa kër ndijaay Assane kay mi nga xamante ni. dama mm-hmm. nee tuuti moo ma yar. Mm-hmm. sunu borom dogal mu jiitu. ñu koy ñaanal sunu borom dolli ay leeram maa ngi nuyu soxnaam yi mu fi bàyyi ak ay rakam ak i doomam. jiital ci sama wéyjur soxna Mori Gueye ak mboolem njaboot gi ñu leen di sant di leen ñaanal di ñaanalaat bu baax euh, sëriñ Mbacke yu fay ñaanal it sunu sëriñ sëriñ Mouhamad Mbacke moom sëriñ Cheikh mu sëriñ Modou Fati Xari sunu borom yàggal ko fi ba yéen bi ko fi bàyyam bàyyil mu woyof ci kawam amiin ba mu àggale ko fi mu jëm ak rakkam ju baax ci nekk Thiès muy sëriñ Mourtada moom sëñ Cheikh mu sëñ Modou Fatou Khady hmm. ñu ngi sant ñëpp hmm. di gërëm ñëpp ndeysaan dina ñaanal yéen Cheikh Abdoulaye Diop jërëjëf sëñ Mor jërëjëf sunu borom gën leen a dëgëral amin amin Diop amin asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Mor Massamba ñu gërëm ko bu baax a baax eh, sëñ moom sëñ Mandaw mi ngi may fàttali bisu sëñ Modou Kara bi le 3 juillet fële ca Mbacke Bawal eh, sëñ naa Ousmane Mbacke taawam ak sëñ eh, Cheikh Badar Mbacke moom sëñ Abib ñu ngi koy woote foofu sëñ Modou Kara xam ngeen ne lu mu nekk ñun suñu mbiru bopp lay doon le 3 lay doon Euh, fële ca Mbàkke mu bëgg a woote moom itam spécial dundu Cheikhul Khadim ca Mbàkke Bawal lay doon la 3 euh, soxna Mbàkke euh, moom sëñ Abibu moom sëñ Manumbe soxna sama xarit maa ngi lay nuyu di la ziyaare Eh, di ci def eh, sëñ Mamor Dendey soxna Mbacke yow sama xarit nga yow bul sax jéem a indi problème yooyu yow sama xarit nga maa ngi lay nuyu di la ziyaare di la ñaanal yàlla defal la tawfeex maam Fatou eh, Mbacke aussi mu sëñ Bachirou mu sëñ Modou Xabban Dendey sëñ soxna Maam waaw moom it kuy topp émission bi ziyaaral na ko bu baax a baax a baax ñu wax sëñ Abdoul Ahad Seck ca Thiès mu ngi yóbbante nuyoom mu ngi topp jataay jot naa message am léegi nii ndeysaan Moustapha Diop mm-hmm. euh, nekk fële ca marché Thiaroy mm-hmm. moom it ba tey mu ngi ànd ci jataay bi mu ngi ñu topp ak soxna Seynabou Sarr ca Mbour tubaarkàlla waaw jërëjëf sëñ Ablaye sëñ Amidou maa ngi mm-hmm. jégalu te euh, wax waxaat du bari wax maa ngi rek sama rakk ju baax ju ma jàpp te jëmmi Serigne Touba tax muy Serigne Abdoul Ahad Niang jàngkatu xasaay ca Touba ku baax ndaanaan waaw yàlla dogal na. Mhm. bis bu dul màggalu Touba. Mhm. këram laa koy dal. Mhm. ndeysaan. 97 ba tey. ba may dal këram. boobu seen kër ñaari néeg a fa nekk. benn bi yaay ma ci dëkk. benn bi mook soxnaam. moom ma ñëwee soxnaam day wàcc ci suuf maa moom ñu tëdd ci kaw. ndeysaan. 97 ba léegi. ndeysaan. ñu ngi koy ziare ma yaatal la ñu ngi koy ziare baax baax di ko ndokkeel ci bis bi ñu génn bis sëñ Abdoulaat bi mook sëñ Amsatu mu sëñ Abdoulaat ndeysaan ak soxna maam Boussou jërëjëf Baye Laat Ñang maa ngi lay nuyu di la ziare eh, borom xasida yu neex yi eh, maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax sëñ Modou Ndiaye Assane tey damaa bëggoon xam nga chroniqueur la léegi day ñëw bu sëñ bi si di waxee mu defal ma benn synthétise waaye eh, yow suba laa lay invité jeudi spécial sëñ Abdou borom dër bi invité naa la aussi samedi spécial Cheikhul Khadim sëñ Mun Njaay Assane amul beñe amul miskit nag ñëw toog seetaan dong la ñu jox la micro bi <laughs> nga waxtaanal ñu firil nu ndax yow danga may daaneel firil nu waaye boo duggee ci ceeb ak yooyu rek yàqu ko sëñ Ahmed Mbaye ca New York maa ngi lay nuyu di la ziyaare di la ñaanal tawféex ak sutura ak euh, teraanga muy sunu euh, xarit moom tamit euh, ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax kon su ko defee foofu la ñu yëkkatee jataay bi di waajal bis bi la 11 juillet incha allahu taala di ci woo mbokk yëpp sëñ ma Thioune ñu ngi koy gërëm euh, soxna ma Mbéyeloo maa ngi gis message am soxna Sugawaan Diop euh, soxna Nogay Ñang Tuwaar Kàll euh, ñoom ñëpp sëñ Ibrahima Guèye Touba maa ngi koy ziare ak mboolem ko bokk ci kuréel kenn sëñ bi soxna Yacine Bamba ñoom sañ sëñ Bàcci Faye sëñ Ibrahima Kundul sëñ Abdou sëñ Abo Ñang Tubaar Kàll soxna Adama Mbacke soxna maam Ami Mbacke moom tamit ca Touba. Euh, sëñ Malick photographe maa ngi lay nuyu euh, di la sant baax di la gërëm ci taxawaay bi di la ñaanal sëñ Touba defal la tawféex guddal saw fan sëñ Mansour Gueye lañ jàkkaarloo loon euh, ci caméra bi jekk baylaat borom wakkaana di ko ñaanal tawféex moom it ak sutura ju bare bare bare bari di nuyu sañ Dame Gueye di ko félicité waat ci mariage bi bëgg naa nag xaw ma soxna Aji Diop Fëlëri lay doon xaw ma soxna Asu Gaawaan xaw ma soxna Anta Samb xaw ma soxna Asu Gaawaan xaw ma soxna Njaay Siibi waaye sëñ Dame daal bëgg naa ñu solalal ma ko ci bis boobu ay jasneer yu baree baree bari ndax tubaarkàlla euh, liggéey na ko ci émission bi tey itam mate na ko sëkk ñëpp taxaw ko euh, kon ñu ngi leen koy yégal incha allah moom tamit bis bu bis bu am solo lay doon euh, di nuyuwaat sëñ Abdou Diouf président di ko gërëm moom it di leen jox di daje incha allah suba ak jàmm ci même heure fii 21h ci Touba TV lu jiw a jeexal jóg fa salaamaaleykum lay leen ma baraka wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillah sikki si kartana barke borom Touba ku gis xutbub jamono bu am fi yow ka leen borom tuuba mu xëy di gis ko te tuuba te lii bu dee jib ba déggoog déggi yi sa xoogam